rajo bi euh, di ziar sama mbokk yi daara yi nga xam ni ñoom la bokkal émission bi euh, dilim lim rek suñu jëriñ Cheikh Mbacke Mbuub géewul Xaadimu Rasuul waaye xam naa du ñàkkit euh, suñ Pape Moxtaar mi ngi ñëw ndax jamono yi changement de programme bi géjoon a génn bi moo géjoon a dugg moo tax moo mu génnoon demoon senegal waaye xam naa ni bi eh, ñàkk bu feexee eh, dina dugg wala dimanche bi di ñëw incha allah ñu am yaakaar ni dina dellu si eh, ñuy ziar ñëpp nag xanaa rek may ziar sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Hakim Eh, nga xam ni jamono yii mi ngi Italie démb ñu ko doon ziare fële ca Padova eh, di ko ziar di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan waaye di ziar sama jëriñ Sëriñ Moussa ñaan mbokk mbokki taalibe yi nekk Veneto yëpp eh, rawatina nag sama mbokk yi nga xam ni ñoom laa bokkal Sëriñ Basiru Mbàkke sunu bunt di Sëriñ Abdul Hakim Eh, xam naa suñu ci tuddee suñu jëwriñ sëñ am satu sàmb rek mel na ni tudd naa ñëpp kon nag ñu ngi leen di ziar bu baax di sant suñu jëwriñ bu tedd boobu nga xam ni moo fi nekk eh, di fàttali mbokki taalibe rek xam na màggalu poroxaan gi ñëpp ñu ngi koy gis ni daanaka moom moo nekk ci suñu kanam di ñaan ñu yegg ko yegg ceeg jàmm ànd ceeg suñu suñu kilifa suñu suñu jëwriñ Euh, sunu xalifa Cheikh Muntaxa Mbakke yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, ñu gis maanaam taxawaayam ci yoon wi euh, disponibilité am yëg-yëg gi mu am ci taalibe yi ak kilifa yi ñu gis fan yi ndeysaan daanaka mën naa ni lay def dem di seeti taalibe yi ak ji fépp fu jëwriñ nekk ba mu jógee Touba ba ni mu eggee Poroxaan ñëpp gis ko daanaka euh, euh, ma nga noonu rek Mbàkke Bàlla dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax li mu liggéeyal maam ju tedd jeedee euh, yéene la ci boole yéene goo xam ni foo ko natt rek wees na ko kon ñu koy ñaanal bu baax Mbàkke Bàlla di fàttali it màggalu poroxaan gi nga xam ni moom la ñuy def at bu jot fii ci Italie ren ñu koy def Camigliano fële ca Brescia di ci ànd ak suñu jëwriñ sëriñ Cheikh Jaxate ak Baye Basirou Dia fële ca Brescia ñoom ak ñoom Babacar Diouf ñu fas yéene koo def le onze avril incha allah kon xam naa ni eh, mbokk yi ñu fàttaliku bu baax di leen fàttali rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora di ci ànd ak euh, euh, sëñ Pape Dem Pape fii ci euh, Pontedera si xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye di di leen di ziar mbokki Brescia di leen jaale suñu kilifa googu nga xam ni moo fi bàyyikoo ko ndeysaan doon soxna Aida Mbacke Euh, ñu denc ko bër ci démb fële ci Touba nekkoon bokkoon ci njabootu sëriñ Abdou Aziz Baara euh, doon lu bette euh, nekkoon soxna su nekkoon ci daanaka mën naa ni du woon mag mu doon lu bette ci communauté italienne bi mu mel ni semaine bii passé xew-xew yi nga xam ni am na Italie daanaka doon lu metti ci communauté italienne bi ndax fële ca Bergamo suñu mbokki taalibe Serigne Naar Baabu moom it euh, noonu rek la ko defee nekkoon ku ku yëngu ci yoon wi euh, duñ yëngu it ci wàllu àdduna nekkoon ci monde associationnisme bi kon mënuñu lu dul ziar ko mbokk yi nga xam ni ñoo féete ci nord bi euh, leen ko jaale waaye di ko jaale suñu bopp ndax mën naa ni diaspora bi yëpp a ñàkk te jii euh, suñu amee euh, mbokk yu fi bàyyi ko euh, communauté bi yëpp daanaka ñoo koy ressentir ma gis keroog rek ñaan gi nga xam ni moom la ñu def si ngooñu saal bi mu feesee fu nekk mbokk tàllu bi jóge fa mu nekk lu daw yaram ñuy ñaanal jëmm yooyu nga xam ni ñoo fi bàyyi ko suñu borom xaraleen àjjanatul si waaye it ci semaine boobu daanaka ci tàmbali semaine bi rek amoon na it beneen xew-xew bu daloon ci euh, di chambre communauté murid bi nga xam ni ñoo féete ci nord bi ba tey euh, di waa Kër Sëñ Tuubaa Monza euh, defe naa ni hmm, li ci nekk yëpp ñoom gis nañ ko dégg nañ ko yàlla dogal ñu am ci ak yaatal wax dëgg fa yàlla maa ngi ziar euh, mbokk yi féete foofu di ziar suma jëwriñ sëñ Cheikh Niang euh, def nañ ci waxtaan yu am solo yaatal ci ab yaatal leeral euh, leeral leeral vraiment communauté mouride bi xew-xew bi ni mu amee ba nga xam ni lépp loo xam ni am na ci Euh, ñu bari gindiku ci ndax wax dëgg fa yàlla euh, du lu bees euh, looloo tax sax tey jii ma ni naa ci naa ci def waxtaan ndax boo xoolee boo boo gisee mm, ma def ci waxtaan mooy mën naa ni tey ji moo di ñaareelu yoon épisode muy am ndax ci mois de juin fii la njëkkee fii ci Toscana Euh, digos mooy ñi nga xam ni ñooy léeg-léeg ñooy def yenn enquêtes yi di dugg ci infiltré wu ci nit ñi ñoo dugg ci kër sëñ Tuubaa gi euh, def fa seeni télécaméra euh, topp daanaka sëñ bi nga xam ni moo doon jàngale foofu doon doon ku baax sëñ ñaan jóg topp ko daanaka ay weer ba jot fa filmer njàng mi mu doon njàng li mu doon wax ak xale yi maanaam léeg-léeg kum ci nawtal wala mu yuuxu la wala mu sax mu pine la yooyu yëpp ñu jël ko def ko euh, def ko def ko ay euh, maanaam lii ñuy wax pièce à conviction euh, mu doon ak tuuma boo xam ni daanaka moom la ñu moom la ñu jël def ko def ko def ko ay ay accusation euh, euh, ba fi mu ne nii mën naa ni ba jamono jii ñuy wax dañ ko téye moom ak yeneen ñaari gone euh, xëy na sax bu Milan bi métti na méttiwul ndax ñoom xëy na mën naa ni gars dañ leen a ñaar ñiñ fa téye dañ leen a téye seen kër kenn ki ñu ñu def ko obligo di Euh, ba dégg naa sax ni yàlla dogal na euh, euh, bàyyi nañ leen ñu nekk pieds de libéraux donte bëgg nañ ci amaat sax ay leeral waaye li tax tey jii ñu dugg si mooy dañu tey jii bëgg a def benn waxtaan may ñaan xëy na suñu jëwriñu daayira yi ku ci mën a dugg ak képp koo xam ni gis nga ni am nga ci xalaat xalaat boo xam ni mën naa yokk askan bi ñu ngi lay ñaan. nga dugg joxe sa contribution ndaxit it li li xew dafa doon lu yéeme ndax boo xoolee mun naa ni du benn nit lañu lañu lañu lañ lañu lañu lañu laal waaye communauté sénégalaise bi ak kër Sëriñ Tuuba lañu lañu lañu lañu lañu lañu loolu nag yaakaar naa ni bu jotee war nañu am benn taxaw seetlu def ci ab njàngat euh, waa Monza nag gis naa ni euh, euh, daayira yi nekk foofu gis naa ni jóg nañu ak jógin bu responsable jóg nañu taxaw waxtaan jël seeni disposition donte xëy na mm, li ñuy wax lu la bett mën la waaye au moins am nañ une vraiment def nañu ate jamantu bu responsable boo xam ni ku leen gis dinga nga dalal sa xel eh, xam ni eh, xam ni eh, taxaw nañu taxaw nañu taxawaayu kilifa loolu nag te jii ci la ñu bëgg a waxtaan ndax boo xoolee dafa am ñaari xew-xew yu am dañoo dañoo laal kër sëñ euh, mu mel ni biñ ko defee benn ñu ne jarul ñu koy médiatiser nañ ko nañ ci taxaw euh, taxaw ci taxawaay bi ci am ñu ngi fii jël nañu ay avocat jël nañu polo avocat ñi ngi ci dox donte ba fi mu ne nii amaguñu ci euh, li ñu bëgg ndax ñi ngi ci enquêtes yi ñi ngi entendre xale yi benn par benn di entendre njaboot yi waaye Euh, euh, euh, pour ñun yaakaaruñu woon ni dana nekk beneen xew-xew boo xam ni dana laalaat beneen côté boo xam ni dana dana jar wax looloo tax sax bi ñu bi ñu toogee rajo yu bari wax ci ñun yéeyuñu ci yàbbi waaye nag bi ñu gisee mu jóg ñu tëj fii kër sëñ Tuubaa ñu demaat ñu ne ñu ñu ngi duggaat ci beneen kër sëñ Tuubaa dafay jóg dafay jar nag ñu jóg toog waxtaan ba nga xam ni yeneen kër sëñ Tuubaa yi fi nekk euh, dafay jaadu ñu jóg toog ñun ñëpp def une réflexion euh, maa ngi koy wax keroog euh, suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoom ñoom la bokkal di collaborer dafay jar ñaari taxawaay dafa am taxawaay bu njëkk bi moo di jóg jàppale suñu mbokki taalibe yi nga xam ni dañ doon liggéey ci toolu suñu borom ba yàlla génnal leen fa ndok ndog ñu jóg taxaw leen taxaw bu doomu aadama di taxaw mbokk taalibeem euh, beneen taxawaay bi nag moo di euh, euh, taxawaayu kilifa yi nga xam ni moom la kilifa yi war a def fii kilifa yi nag su ma koy wax damay wax ñaari ñaari pàcc la benn bi moo di kilifa àdduna yi dafay jar ñu jóg taxaw ndax nag kër diine yi nekk fii moom moo fii sunu référence moom moo tax communauté sénégalaise yi dégguñu leen xëy na dégguñu leen ñu ne sénégalais yi nàngam donte léeg-léeg mu am benn benn euh, euh, euh, këru sëñ Tuubaa yi mën naa ni bu association yi amee ak dëgërlaay fii këru sëñ Tuubaa yi ñoo ko waral ak association day murit yi tey jii ci la ci la association yu bari juddoo te it daanaka boo xoolee ñi nekk ci association bi ñu ci bari ci daayira yi la ñu juddoo ñu waajal leen ba ñu mën a dem kon nag dafay mel ni tey ji dëkk dafa am dafa am loo xam ni boo ko laalee rek euh, stratégiquement rek da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay woyofal euh, da ngay dëkk ba kon dafay jaadu tey ji euh, ñu toog def benn xalaat waxtaan xamal ni tamit dëkk bi ñu nekk dafay jaadu ñu soppi sunu taxawaay ndax it euh, euh, liggéey niñ fi lu lu li ñu liggéey jarut a ndax liggéey bu am solo lañ fi def ñëw ci dëkk boo xam ni euh, dara nekk fi woon partir de zéro ba nga xam ni maanaam dëkk bi amuloon dara ngay dem di dem di dem di dem ba ba samp fi ay kër commencé teg fi ay kuréel wutal leen ay këyit ñu dem ba nga xam ni am nañu njaboot goo xam ni maanaam ñi ngi fi dund ñu tuute laare leen ba nga xam ni parce que buñ ko fàttaliku Italie dans les années quatre-vingt-dix ba quatre-vingt-quinze man at yi ma fi doogu ñëw daanaka nit xalaatul taxaw ci mbedd mi nekk ci yenn mbedd yi di fa doxantu di def lu la neex euh, léeg-léeg sax ñun kër yi ñu daan dëkk dañ daan tëdd ba guddi euh, waaye der yi ñëw fëgg Euh, di yee waa kër gi di laaj ay document mu def mu mel ni kon am na lu fi indi maanaam euh, seral yooyu euh, ñu dem ba nga xam ni ñu ngi ñuy concédé ñu commencé di fi organiser ay màggal màggal yi dañ ko daan organiser ci ay ay ay ay ay place yu tuuti ñu dem ba nga xam ni gis nañu ne léegi entité lañu ñu commencé di ñuy jox ay place publique waxatuñu ci loolu ci place publique yi dem ñu dem ba nga xam ni ay autorité dañuy ñëw ànd ak ñun euh, ci ci ci ci ci ci xew-xew yooyu nga xam ni moo di xew-xew diine euh, màggal gi 8 juin yi ak yeneen initiative yi ñuy def fii yëpp autorité italien yi dañuy ñëw ànd ak ñun euh, balaa balaa boobu sax autorité sécuritaire yi waa ministère de l'intérieur préfecture boo xoolee daanaka amul benn màggal bu jëm ci màggal yi nga xam ni moo di màggal yu mag yi bésu xasida yi day euh, du ñu autorisé pour ñu mën a def ko ñu mën a ñu mën a tàmbali ndax dëkk dafa am nu muy doxee tey jii bésu xasida yi balaa balaa ñu koy def daanaka dinañ ci liggéey ay weer weeri weer weer dem préfecture préfet bi laaj ñu plan de kii bi euh, plan de sécurité bi naka lañuy def ñaata nit dafay dem yooyu yëpp bu ñu demee ba dund ko ñu dem ba nga xam ni tey jii Euh, dëkku dëkku dëkku dëkk dëkk bi euh, euh, ci ay ay ay at ci gannaaw maanaam seen carte d'intégration bi nga xam ni bind nañ ko mu jëm ci wàllu convivence ci wàllu diine maanaam mouridisme communauté sénégalaise la ñu jël def ko comme référence jël suñu guide religieux mu di Cheikh Ahmadou Bamba ñu def ko référence loolu nekkul lu tuuti kon nag bu ñu demee ba tey ñu commencé euh, mettre en euh, ñu ko ci euh, indobbio maanaam suñu nekkin fii ci wàllu ni ñuy yaree wàllu suñu kër yi ni mu nekkee day jaadu ñu jóg toog waxtaan seet ci contexte bi ñu nekk est-ce que jógul nag jotul ñu ñu jóg vraiment waxtaan suñu biir xool ndax it nag euh, du lépp a baax ci lu ñu def am na loo xam ni jot nañ ñu jóg soppi ko soppi ko euh, ci doxalinu réew mi euh, ba nga xam ni wax dëgg fa yàlla du ñu am fu ñu jamee ndax it nag dañ koy wax dëkk bi lu ñu tolere toléré am na loo xam ni neexu leen mu di l'islam bi nga xam ni ñu ngi koy dugal ci dëkk bi daanaka mën naa ni seen noon numéro un mooy suñu diine eh, kon nag am na loo xam ni te it nag ñun dañ fay ñëw te jóge guñu fi am yu ñu fi war a eh, sos am yuñ fi tàmbali bëgg mu yàgg am continuité ñu war ko teg ci yoon ñu gis jamono ji par exemple lii nga xam ni moo di eh, mooy mooy mooy mooy mooy wër ci Europe mooy maanaam intolérance bi nga xam ni moo am ci ci Europe nekk loo xam ni lu yéeme euh, buñ koy wax daanaka euh, bu leen xoolee rek euh, fan yi rek ci ci ci ci ci ci veyu élection yi amoon Emilia gis ngeen Salvini li mu doon def dem kër ay immigré di di chitofonaare ci bunt bi di ko wax ni yow dañ ma wax ni ma da ngay jaay drogue daanaka mu mel ni nekk na loo xam ni lu doy waar la Euh, kon dafay jaadoo ñu toogaat xalaataat suñu biir seetaat euh, euh, suñu daayira yi lan lañ ci war a laalaat defaraat ko toggaat ko ndax it sëñ bi dafa am liggéey bu ñuy liggéeyloo fii sunu waajur yi suñu mag yi ñëw am ñu fi teg teg ko ak difficulté ndax boo xoolee ñi fi njëkk ñëw daanaka bari na ñoo xam ni sax Euh, euh, euh, ba ñuy bind seeni seeni statut ay tubaaba leen ko bindal daanaka booy xool jafe-jafe lañ ci am lu ci ëpp daanaka am na ñoo xam ne sax day léeg-léeg dañ leen di bindal te duñu xam ne ñu bind ñu toog ci jamono joo xam ni léegi mën naa ni daanaka yàlla defal nañu tawféex boo xam ni tey jii ci biir communauté bi am na ñoo xam ni tey ji boo fi doon bind statut mën nañu la ko tàmbaleel ci baa ba ba ba ba A ba euh, te doo ci soxla ñu dem ci tubaab ndax am na gone yu fii euh, euh, fere iji ci wàllu nasaraan ba ni ñu amee seeni lijaase jaxasoo ci administration bi di liggéey nekk ay avocat ñi nekk ay ay xeet ci wàllu juridiction yoo xam ni yaakaar naa ni jot na ñu toog am ci am ci ak waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom Euh, surtout ñi nga xam ne ñooy liggéey euh, ci wàllu droit avocat yi euh, def benn lu ñu koy waxati benn benn benn benn séminaire ba ñu mën ñu ñoom ñu mën ñu toog teg ñu tegaat ñu ci yoon ba nga xam ni tey jii dinañu mën a aar sunu association yi rawatina nag lii nga xam ni moo di kër Sëñ Tuubaa ndax ki ko fii sosoon de lam ko jaraloon tey jii yaakaar naa ni euh, euh, euh, waruñu toog ñuy dégg Sénégal donte léeg-léeg ni ñu koy waxee rek maanaam ndawal moom dana am waxe nag benn ñaar defe naa ni ay ay ay signe la yoo xam ni yu jara bàyyi xel la ba ñu mën toog ñun ñëpp xam exactement lii nga xam ni mooy euh, euh, li nga xam ni mooy euh, mooy maanaam xew-xew yi mu ne su mu ne ma bañ ñoo bett tey daal am naa yéene dëgg-dëgg jot ay jëwriñ ñu wax ci seen xalaat de euh, euh, surtout nak njangale bi euh, njangale bi tam man man wax ci war nañ ci commencé ay ay ay ay ay ay ay ay proposition euh fi amna ay borom xam-xam yu fi nek ji damay gis ku melni ñom cheikh ñal euh ay mbokk talibé sëñ sëñ euh, euh, bi mbake nekk Novara damay fàtte turam siñ siñ siñ sëñ ñaan jóg fii ak yeneen mbokk taalibe yoo xam ni tey jii euh, ñooñu boo leen dajale woon wares nañoo mën a bind benn téere boo xam ni fépp fu ndongo daara nekk fii ci Europe war na fee mën a fere ijji Euh, ba ba ba dem ci lii nga xam ni moo di moo di wàcc euh, te du am problème ñu def ko tam euh, def ko ci ay làkk ba nga xam ni ñi fi nekk tam dugg ci ci diine ji danañu mën a par exemple jaxasoog ñun du ñu am problème ndax boo leen xoolee problème boobu am na dangay gis ñi tuub dañuy am difficulté au niveau surtout ñun fii au niveau de l'Italie ndax euh, dañ ci am gàpp boo xam ni dañ ko war a dañ ko war a combler mu nekk liggéey boo xam ni du liggéeyu benn nit tey jii euh, daara euh, kër sëñ dañoo war a toog xalaat ci ku mel ni sëñ Maam Mor tam mën nañu cee jàppale ndax moom ñëpp gis nañ liggéey bi ñu def Sénégal waaye it ñun contexte bi ñu dund fii ñun ñoo ko xam avant tout donc war nañu nekk ñi nga xam ni ñooy proposé maanaam laka la laka lan la dëkk bi laaj ba ba mën a war a mën a taxaw tey jii euh, euh, ku ñëw ci ñun xam ni ñun kat ñu ñu waajal lañ ndaxit it tey jii euh, dama gëm ni su fekkente ni ma ni baaxul waaye ku nekk Sénégal tey jii donte jàngalekat la bëgg ja bindal téere ñu nekk fii te xamagul lu ñuy dund xamagul ci ban contexte la ñu nekk Euh, dina dina am ay ay mën na am léeg-léeg ñu am ci ay problème euh, di di jéem a tam wut ay téere yoo xam ni dafay méngoo maanaam sunu sunu aada loo xam ni dina mën a contraster maanaam lii nga xam ni moom la ñuy fekk fii ndax léeg-léeg euh, gone yi dañuy am par exemple ay pulsions yoo xam ni dañuy bëgg li nga xam ni moo xew moom la ñuy bëgg loolu nag ni ñu koy mën a defee moo di technologie yi nga xam ni moo dëppook jamono ñu fexe ba wut ci ay jumtuwaay ak wut ci façon boo xam ni dana war a mën a toog ndax tey jii rek war nañu mën a créer suñ Abdou Aziz Bara euh, suñ Abdou Aziz def na ko majalis euh, créer benn benn benn benn benn software boo xam ni xale yi dañ ci jàng mais ñu defaat lu mel noonu loo xam ni tey jii Italie kër Sëñ Tuubaa yëpp war nañ ci mën a jàng ba nga xam ni sax gone gi bu demee këram euh, ay waajuram dinañ ko mun a dinañ ko mën a topp waaye it nekkaat ci wàllu yar wi ndax it euh, euh, dëgg la euh, am nañu suñu culture nu ñuy yaree lépp lépp waaye it contexte occidental fii permettre lul xale ñu koy def loolu maaleykum maaleykum salaam ñu ñu koy def ay xale loo xam ni lu yéeme la dafa mel ni mbokk yi tey commencé nañ dugg mel na ni sax sëñ Pape Makhtar mi ngi ci biir Pape Makhtar waaw asalaamaaleykum sëñ Pape naa sëñ Pape Makhtar a ngi fi sëñ Laata ngi fi kon dama leen di jox kàddu gi rek euh, dama tàmbali woon waaye wax naa lu bari tey jii li ma bëgg a euh, tomb bi ma ubbee moo di mm-hmm. jafe-jafe yi nga xam ni moom la daara yi di dund ndax ñëpp mm-hmm. xam ne ni sëñ Pape ñu ngi lay dalal di la wax marxaban naka waa Sénégal euh, mm-hmm. jamono ji bi nga fi nekkulee am na xew-xew bu fi xewaat moo xewoon Toscana dalaat waa Monza waaye nag li tax ñu koy wax pour euh, li tax ñu ci sax wax pour maanaam toog def une euh, une une autocritique boo xam ne ñun suñu biir lañ ko war a def euh, léeg-léeg bu ñu génnee taxaw suñu mbokki taalibe taxaw ba ca war moo xam wàllu droit la waaye it war nañu jóg politiquement am taxawaay bu ñu taxaw loolu nag pour ñu mën ko def il faut ñu xam li nga xam ni moom lañu ñu war a soppi ci suñu biir ak li nga xam ni baax nañu mën koo defal tey daal Euh, ci ci tomb boobu laa bëgg a wax xam naa bu ñuy tëj sax du ñàkk dinañ laal xew-xew bi nga xam ni moo xew Chine waaye lii moom dafa ni këtt ni jorn mu ne su ko bañ laal suñ pap ma dalal la bismillah. macha allah macha allah suñ pap euh, maa ngi leen di nuyu di la nuyu di la ziar di ziar euh, suñ bàyyilaat mi soog a dugg di nuyu auditeurs yëpp di jiital ci nuyoo bi suñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool di ko teg ci loxoom. jàllale ñu ko bépp kilifa diine kilifa aada fu ñu ci ne ci àdduna e, di wax ni nam nañ leen gëj nañ ci rajo bi waaye dañoo nekkoon ci ay jàpp-jàpp rek moo ñu téewoon waaye dellu si nañu ci jàmm bàyyi mbokk yi ci jàmm fekk si jàmm e, di wax ni tomb bu am solo nga nga nga nga laal ni ndax wax dëgg yàlla ah jafe-jafe yi day nga wax ni man e, xawoon naa ko mbir tuuti ndax euh, li ñu naan ajourné wu ajourné wu ma ci woon loolu li jot naa cee lire tuuti rek waaye comprendre wu lu xew ci dëkk bi waaye dama jàpp ni rek euh, càmbar gi nga ci càmbar noonu ak njàngat bi nga ci def am na solo lool ndax euh, ñun am nañ sunu façon mu yar ñu tàmbali ko ci ci diine commencé tàmbali jàngal xale yi ci daara ci seen tuut tànk Euh, tàggat leen noonu euh, waaye yàlla dogal na dañoo nekk ci benn système tënku ci système kon daara yi nga xamante ni ñu ngi fii dañoo war a am euh, benn mécanisme bu bees bu ñu créer maanaam du doon loo xamante ni day soreek sunu sunu diine ak sunu aada waaye ñu adapté ko ak xaw ko moderniser tuuti pour mën a ñemeloo xale yi dana am solo te loolu pour nga def ko dafa am yu muy laaj euh, te yi muy laaj du méttiwul euh, yàgg nañu ko wax ci rajo bi espace bi nga xamante ni euh, xale yi war nañ koo am ci ci daara yi espace yi nga xamante ni xale yi ci xew-xew yi màggal wala gàmmu wala lu mu mënti doon wala ziar laboratoire yooyu nga jox xale yi cër cër cëral leen ci ñu mën a beru benn wàll am ñu leen di suivre au delà de njangum alcorane yi nga xamanteni ñu ngi leen koy defal ci weekend yi mais dafa dess dafa des pàccu yar bi ak seen nekkin ak seen comportement ndax xam nga ñun ñëpp dañ koy faral di wax eh, gis nga bamba fépp gi ñuy wax eh, nekkin la comportement la da ko war a eh, dafa war a ne ci yow ba ku la gis dalay naw ku la gis day xam ni yow mi tu représente quelque chose pour tant d'autres personnes Eh, reflet la wara a doon maanaam da nga wara a doon ambassadeur mouridisme fo fépp fo mënti nekk te loolu buñ du ci tàggatul doo ca mën dal te du ñak yow amana mën nga tari nasi ba bakra waaye ci sa comportement buñ la gisé rek dañu la xép kon jangale mi du du du rek mom mom moy defar nit ki dafa am leneen lu koy accompagner jangal ko aduna te loolu ñun fi xalé yi lu ci ëpp dañuy nekk ak tubaab yi euh, di am comportement tubaab yi di def li ñuy wax mimétisme euh, assimilation euh, di bëgg réaliser benn rêve ñenn ñi juddoo wuñu fii bu ñu ñëwee dañuy indaale benn benn benn xeetu gént benn xeetu xalaat yoo xamante ni dañ naan bu ñëwee dañuy bëgg a def ni tubaab bi dañuy bëgg a def na le kon boo njëkkut ci ñoom rek da nga leen di ñàkk keneen na leen di jël uuf leen d'une manière boo xamante ni amaana du la neex Euh, yàgg na wax fii ne dañu am ay instruments mais malheureusement duñu ko exploiter ni ñu ko war a exploiter euh, ñun concours poésie ci Cheikh Ahmadou Bamba concours poésie ci Serigne Mountakha Bachir concours poésie ci ci maam Alaaji Malick euh, war nañ di ko def ci biir sunu ay sunu ay sunu ay xew-xew sunu ay màggal sunu ay daayira loolu dina tax xale yi di gën a di gën a jege si foofu ndax tubaab yi dañuy def ay concours poésie ci seen i seen suñuy xale di dem da ca di ca kon ñun war nañ xamal xale yi ne leen euh, lii tubaab yi di def ñun am nañ ko mën nañ ko te it te ñañ koy defal it euh, ndax boo defee concours poésie ci ci sëñ bi dina la tax nga gën a mën a gëstu sëñ bi ndax sëñ bi dañ ko war a gëstu pour xam ko ndax xamaguñu ko ah donc man dama gëm ni rek. instrument yaa ngi fi mais nañu collier instrument yooyu te bañ a topp yenn yi ci li nga wax noonu euh, maanaam euh, nit di wax euh, bëgg ñoo waxtaanal ci sunu biir sunu nekkin fii te newul fii dund ko dafay xaw a jafe te saa su ne ma wax ko gis nga waaraate yi waaraate yeeg nangam ak nangam nit jóge Sénégal ñëw fii mën naa ci jot nag ay critique nañ ma ci jéggal bu baax a baax waaye nit mënuñoo wax wax dëgg yàlla ci waaraate ah ba waar ñu ci suñu nekkin fii te dund ko ak ñun mënta nekk mënta nekk te ñun ci sunu biir fii am na ci ñoo xamante ni macha allah yàlla may na leen te ñoo ngi koy dund ak ñun di xëy dem di def opéra di dóor oto oore te yàlla may na leen ñu doon ay borom baax yoo xam ne ñu dund ak ñun fii damay joxe exemple rek sëñ Ablaye na ma na ma jéggal rek waaye danaa ko tudd euh, boo déggee kàllaamaam xam ni ki borom baax la ki mi ngi door waar kii am na lu mu xam ci réew mi kii mën naa wax xale yi mën koo déglu parce que xam na ban pédagogie lay utiliser pour xale yi ndax mi ngi nekk ak ñoom ci réew mi fii di leen romb guddi ak bëccëg waaye boo wooyee kenn ku jóge oustaz su jógee Sénégal ñëw fii euh, mënu la wax dara ci xale yi day wax d'une façon générale donc mécanisme yooyu il faudrait que ñun ñu koy ñu koy adapté mënta ñàkk loolu mënul ñàkk parce que sinon dañuy fausser suñu yoon que buñu démé ba ci kanam euh ñiko yor actuellement ni dañuy déplacer wu mu am de mouvance bo yor ko te do xam ci ban anam lañ koy yoré donc tat leen ci am solo benen bi ci euh bala may guddal rek mëna jox euh, sama ñu ñu euh, bi ci euh,

dafa te loolu daf dañuy dañuy ak tubaab bi parce que tubaab bi pour mu xëcc ko ci boppam il faut que moom mu ñuy gis ba pare. Mm-hmm. bu ñu fàtte mm-hmm. ñoo fekk tubaab bi mënuñu imposer tubaab yi suñu suñu suñu yoon ñun. Mm-hmm. Euh, ñoom ñoo ñuy jox autorisation ñuy def suñuy màggal suñuy gàmm suñuy ziar ak suñuy nangam ak nangam. ñoom bu ñu xewlee ñun néew ñëpp nañ dem waaye nañu délégué bu dee benn bu dee ñaar di nekk activisme ci commune bi ñu nekk. parce mm. que dafa yor loo xamante ni ñaanuñu yàlla tey jii ñu dog ko wala ñu tëj ko wala ñu ne ñu du ngeen ko fi defati ndax euh, dana doy waar lool nag bis bu yàlla sàkkee euh, tubaab yi jékki-jékki def benn campagne boo xamante ni dañuy bëgg a tëj kër yi euh, ak yu ni ak daara daara yi. Mm. ñaanuñu ko yàlla te it ñaanuñu yàlla suñu wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni jublu na ci lu koy saafara incha allahu rabbi daañu ci dox. xaaral ma jox suma gaañ bu ko defee ñoom ñu mën a barkeelu. waaw mel na ni am naa ay mel na ni am naa ay gan xaaral ma jox bàyyi laa. salaamaaleykum waaw bisimilah. ngi siyaar. ñu ngi delloo salaam waaw waaw bisimilah bisimilah. xam naa nag Cheikh Mbacke mooy àddu fële ca Sénégal waaye dafa mel ni li ñam dafa xaw a kii kon kon bàyyi laat mën ngaa yeggali bu paree le temps muy représinaare ñu dem bisimilah. na nga ziare Pape Tall. ñu ngi ziar bàyyi laat. la ci jàmm yoon woo mu ñëw rek. bisimilah. nga xam si xëy na daa joto day doog jot waaye da doon ca jaal benn gën waxtaane ko te mhm. toskaana mhm. man naa ni ci ni nga waxee toskaana la njëkke waa xam naa boo yëkkati woon baat bi dina gën a baax nag man naa ni da ni tos nëpp rek waaye xam naa lool dal na leen lu mel noonu. Mm-hmm. ndaxte lu mel noonu danoo daloon ñun parmi nii. liggéey mm-hmm. fii. Mm-hmm. biñ leen wooyee xam naa tamit ñàkku ni doon na leen topp. def si ak mat wax dëgg yàlla ba fi bi sëñ Mamour mujjee danoo leen invité ñoom ci cérémonie bi sax ñu. Mm-hmm. sëñ Baal mi ngi jiite wax dëgg yàlla def ci discours bu am solo. bu italien bu dëgg bu bu bu mm-hmm. kër gi yéen seen kër la saa yu ngeen bëggee man ngeen a ñëw. waaye nag dafa jot maanaam nu suppi aw doxin ndax. dafa monté ay télécaméra ci yari ni ah, waaw dañ topp. jàpp ci ay ay maestra yooyu xam na sa ñun sunu yarin kenn ku ne xam nañu dëppawul ak bisimilah waaw ñu lay déglu te kenn ku ne xam na ni réew mii nu nekk fi la jàngu christian christianisme ak l'islam xam nga ni dëppoo wul mm-hmm. luy suuxal l'islam moom xam nga ci fas yéege yéene suuxat ba def mm-hmm. ci ay kër kër gu gu ci matulut yaa ngi jigee mat sa mm-hmm. lool ko kon nag système bi war nañ ko mën a changé waaw toog waxtaan ci ba jub lu mel noonu du dal mhm. ama ñum dal nag maaye xam am li nga wax am ñam dañ koy nëpp nëppal médiatiser ko parce que sunum njàng ni jàngale gone dëppawul ak réew mi waaw ba tax na loolu wax dëgg yàlla da sama xol damaa xam ni yow yaa ngi waxtaane lu am waxtaan xam naa nag sama xam-xam demewut na ma naa yee naa feeñal sama yéene rek xam ni loolu daloon nanu waaye tamit ñun kuy ku kuy joxe ci daayira bi da ngay joxe sa tur ak sa code ci fiscal mhm. benn registre lan am tey ji bu waa gaay dajal dinañ mën a nen kii diwul la abdoulaar la codice fiscal la mi ngi nii weer sàngam nangam lay joxe mhm. système yooyu nag gone yun fi indi woon yar leen ñi comme ni nga am na ñu am si dem nañ ba seen njàng fi doon nongi ay avocat la yooyu dañ leen war a xaj mhm. war a war a am ñu leen jiite du question que rek dañuy doxe mm, nja ah, njàngum caa ñu yoo jàng njàngum càmmoñ dëgg la parce que réew mi moo demee noonu. Mm-hmm. kenn ku na xam ne situation. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam maaleykum salaam. Cheikh salaam Tahir loolu tuuti rek mbokk mi daaneel ma jox la. waaw. waaw bisimilah sëñ la. Talla moom. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. leeral gi mu fi leeral ak maanaam ni mu koy xaale dafa am solo. code fiscal da nga ko joxe tey jii bu doon ñëwoon ni xaalis bu ngeen ko jël dina ni bàyyi laat nangam vieux taal moom vieux moom xam nangam ma nga dëkk via nangam numéro téléphone am yi numéro téléphone yi xaalis baa ngi nangi yow ma xam maa ngi jégul nag di masaw mbokk moom nga xam loolu ci Monza di ko ànd ak moom jërëjëf def la nga xam ci tubaab mën na noo fakkastalu waaye nag lu sëriñ bi jàppale jàppale danoo war a jàppale suñu bopp jël suñuy matuwaay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf doxee ba ba léegi am nga problème waaw waaye nag sëriñ bi lu mu nekk nekk suñu ginnaaw danoo war a jéem a jël suñuy matuwaay. dëgg la ñuy dox dëppawul ak jamono léegi jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. Euh, kon xana ma delo kaddu gi rek Cheikh alhadj alaaj alaykum wa rahmatullah alaykum salaam wa rahmatullah marhaban marhaban fikum <laughs> ja eh, eh, mbok yi yëpp alaykum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu di len jare pap Demba pap Mokhtar sama gay yi Modou Mbaye Thiam mboolem auditrice ak auditeur Xassida Online tuba monde bi ma ngi len di wax alaykum wa rahmatullah salam. no mon nañ la lol nak sëñ <laughs> la sama yaay lan wax namm naa leen ba aw mu foo ko def. namm naa leen ba aw mu foo ko def. géwél géwél maa la raw de géwél géwél maa la raw. si ñëpp laay jóg. moom mën maa ñàkk a dugg. féewale <laughs> <laughs> ah, na si ñëpp laay. ah. abadal bisimilah bisimilah la dagg dama la doon nuyu rek jërëjëf. jërëjëf maa ngi maa ngi tuub bu ba fan moom maa ngi tuuba almanusa dafa mel ni li ñu li tagaar bi day daw a ñëw. waaw xam nga connexion Sénégal rek moom li gars yi wax mu sàllis. Sénégal moo xaw lool rek waaye nag. di sant bu baax a baax ci wax dëgg yàlla nii nga jàppe liggéey bi ndax euh, toll na jamono yoo xam ne yow yaa fi nekk maa ngi dem Sénégal yàgg fi def naa presque cinq mois Pape Pape Makhtar déggante nañu Sénégal waaye gisante wuñu wax dëgg yàlla nga yore liggéey bi di ko dox ci doxin mu rafet am ci Pastef ñu ngi la ñaan yàlla Serigne Touba gunge liñ ci amoon ci yaakaar tam ba nga tàbbi ci wax dëgg yàlla macha allah gàcce ngalaama loolu lépp gis nañu ko ci ndax yaa ngi def sa jot di ci def sa xam-xam kon vraiment loolu ñu ngi koy seeral bokk yi déglu yëpp di ziar bàyyilaat moomu di ziar waa Palma nag na ma leen loolu di njawut suñ tubaab gi ne ci réew mi yëpp daayira yi yëpp maa ngi leen di bégati di leen eh, xam naa fan rek ci kàttu yàlla incha allahu rabbi xam naa du ma guddal ndax comme eh, émission bi bi dafa am thème boo xam te solo la boo xam dafa ñoo laal ñëpp ñuy la ñuy jiital mooy ginnaaw bu ñu ziaree ñëpp di jël ziar bi teg ko ci siñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sunu kilifa ñu ñëpp ak sëñ Mamour mooy jëriñ diaspora bi bu baax a a ñooñu waaye itam di ziare Serigne Moubarak Lo bi nga xam ne moo na ci bopp confédération association Cheikh Ahmadou Bamba ci Italie toll ci fukki daayira ak ñett ñu ngi koy ziare baax di ziare mboolem jëwriñ ñi ànd moom ci liggéey bi. di leen masaw bu baax a baax ndax euh, am na vocal bu ma defoon ci confédération wax ne kat yàlla dogal na lii laaloon na sunu mbokk taale bi di sunu xarit bi may soog ñëw Sénégal daggee nañu Masaalikul Jinaan muy baax di sëñ ñaan mm-hmm. Diop. ñaan sunu borom mu woyofal lépp lépp lépp di sunu mu jàngandoo école primaire muy nit ku baax koo xam ne loolu rek la xam alxuraan la xam. Mhm. képp koo xam njabootu sëñ ñaan xam ne alxuraan rek la xam amul mhm. amul amul beneen beneen beneen ressource alxuraan rek la xam. Mhm. Euh, yàlla dogal mbo mbir moomu daal ci waa Monza ñoo ngi euh, masawu bokki taalibe bi mu daal ci ñoom ndax daara jooju yàlla dogal na mas nañ fa ànd ak sëriñ bi mu dem fa benn yoon wax dëgg yàlla ñuy ñoo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci njàng mi waaye Pape li ma bëggoon attirer attention rek mooy. Euh, maanaam euh, wax naa ko ci vocal ba mooy ñu xam ne euh, réew mi ginnaaw du sunum réew réewum jàmbur la buñ fi doon am téeméeri atam réewum jàmbur la buñ fi doon am fukki kër sëriñ tubaa ak juróom benn ci lim bi fi mu toll buñ bu doon mat téeméer tamit ci suuf jàmbur lañu ko am loolu dama bëgg fuñ mën di toll ci àdduna ñu koy bàyyi xel bu baax ba ñu naagu ci yu baree bari te mm-hmm. xam ngeen ne réew mi ay occidentaux lañ donc amuñu jublu ci lislaam

faw da nga koy yar ca nañu la yaré naam ñun Sénégal lañ jóge ñew ñom ñu juddoo ci réew mi donc ñom contexte biñu nek mo gëna difficile parce que ñom ils ont à équidistance ñaari culture ils sont partagés par la culture occidentale ak la culture euh, africaine suñu xëyee yenn ci école ba ci ngoon nga buñu ñëwé culture africaine lañu dund ci kër gi buñu xey xëyee ba nañu delluwaat ci école donc day xawal a day waar lool lool lool ci goné parce que comme bon yi ma ciy dégg ñu ne xëy na xale bi dafa defoon ko deful compité ñu ne ko lan moo tax defoo compité ñu mu ne mu ne kët bu demee bu jëmee kër ga day dem école jàngi day dem jàngi alxuraan te bu mokkulul mën naa am mu am euh, ñu ñu bu ndaxataal ko xëy na moo tax deful compité ba xëy na par loolu la ci am jëy yëpp ak nu mën di demee rek ñu xam ne ci réewum jàmbur la ñu nekk waaye waggaat ci. waggaat googu ma ci njëkk njëkk a mooy suñuy autorité ministre bi ñëwoon na fi bu yàggul fan yi baakaar naa démb wala barki démb na ñu fexe ba gouvernement Sénégal nañu dimbale ak suñu autorité diplomatique ba ñu mën a am ay accord mën a am tam ci jëm ci wàllu social boo xam danañu mën a fàggul nit ñi xamante ni buñ ko laajoon tey kenn ku nekk am nga droit dund sa diine kenn ku nekk am nga droit dund sa cosaan kenn ku ne am nga droit dund sa tradition waaye lépp tamit li nga xam ne moom mooy sàrti am ay barab yoo xam ne day nekk en norme ñu am ay table ba am lépp di jàng gone lu ma a nekk la wala kër yi nga xam ne am nañ ko ñu ñu ñu fexe ba am ay autorisation ñu am ay salle yoo xam ne dañ koy équipé mën nañu ko ndax ki jënd këru trois cent wala quatre cent mille euros mën na occupé salle bu dix wala wala wala wala wala sept mille ba gone yi mën a jàng ci condition yoo xam tey ku leen fa fekkoon tey dooni lii kat nangam la war a nangam ginnaaw réew mi dafa am lu mu laaj ñaareel ba mooy ginnaaw yàlla dogal na dëkk bi am na kuréel goo xamante ni taxaw na ci fexe boole mboolem njabootu Serigne Touba gi nekk ci dëkk bi euh, taxawal ay këyit yoo xamante ni wala statut boo xamante ni lépp lu jëm ci loolu sóoraale na ko am na ab commission culturel am na ab commission organisation am na ab commission féminine ñu fexe ba di gën a jege kuréel gi ngir lépp lu am ndax benn benn bant yomb naa dam waaye fukki bant bu ñu ànd yóbbu ñu xool nag incha allahu rabi nuñ ci gën a mën a taxawee ci biir confédération bi ba loolu du amati maa ngi koy wax keroog ne maa ngi mettre en garde mboolem kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne wala centre yi wala daara yi nga xam ne Tuubaa bi demaguñu parce que déjà comme am nañ benn Toscana am benn Milan bu leen yaakaar ne dañuy xamal seen ngemb wala ñu tekki seen tànk ñu ngi dox te leer na ma ni yàlla bu mu ci àgg waaye xam naa ne seen xel a ngi ci ñu dem di nemme comme gis nañ ñaar faw tubaab bi dañoo yeewu nañ def ba gis ñee ñene mën nañoo ji kon nag ñi nga xam ne dem daan def ci loo xam ne jëm na ci châtiment corporel wala correction boo xam ne nii dafay doon correction physique nañ ko buñ ko may teg ci suuf moo gën ndax faw wu ñu ñëw dem ko si xool ndax li am si yeneen barab bi am na kon daal ñu ngi si interpellé ñëpp ñu gën a redoubler d'attention gën a booloo gën a bokk ndey gën a bokk baay waaye gën a waggar sarti réew mi Eh, gën a tam tàllal autorité yi ñu gën ñoo jàppal ndax am na loo xamante ni Pape Demba man na ko mën naa ko waaye eh, eh, lu am loo xam ne ni état ak état ñoo ko mën damay bañ a monopoliser kàddu gi namm naa ne lool maa ngi di siyaare di leen bége di leen ñaan jàmm dañ sàkku tamit seen la ñaan sëñ Ablaye bi rek maa ngi koy siyaare di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla mu defal leen taw fi te defal na ko ci barke Sëriñ Mountakha siyaar nañ bu baax dafa mel ni. maanaam mm. ci deuxième phase wu waxtaan bi. moom la mm. ma introduire euh, pour ma jox sëñ Ablaye euh, kàddu gi. ndax sëñ Cheikh dafa laal ñaari côté yu am solo. moom laa doon wax ma ni euh, xew-xew bi ñaari côté la. dafa am côté boo xam ni mm. suñu biir la ak côté boo xam ni daf ñu dépassé ñun mu di cadre politico religieux bi. ndax tey yàlla daf ñu dogal yàlla daf ñu defal taw féex ñun waa itali am na ñaari député yu nekk fii. am nañ consulat général am nañ un ambassadeur euh, may yaakaar ne ñu am tam ay bonne volonté yoo xam ni tey jii bu ñu leen tuddoon ci communauté sénégalaise rek euh, war nañu mën a taxawal communauté sénégalaise fu nekk euh, loolu nekk benn ressource boo xam ni dañ ko war a exploiter ndax nag bu ñu laalee benn nit benn nit la waaye bu ñu laalee loo xam ni lépp communauté bi la kenn mënu koo séddale dafay jar léeg-léeg ñu jóg am taxawaay boo xam ni dañ ko war a taxaw euh, man am na ñu ma si jot a déggal waaye dama yaakaar ni dafa war a nekk benn doxin woo xam ni ñëpp ci war a taxaw ndax tey jii mm, ñi ngi wax waxu confédération mais wax dëgg fa yàlla man constat bi ma gis mooy ñun Italie booloo wuñu ndax bu fekkee confédération am na fii téeméeri confédération kër sëñ Tuubaa ay këru euh, kër këru kër nekk fi euh, ay ay ay ay ay dëkk yu ne maanaam tey jii boo ni woon boo doon def maanaam Censimento li nga fiy gis ci ay daayira euh, te boo nee confédération bële beneen confédération jur boppam waa kër sëñ Basiru waa kër sëñ Modou Moustapha waa waa waa waa kër sëñ Fàllu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall waa waa kër Cheikh yi loolu nekk beneen contexte boo xam ni tey jii dafay jaadu ñu jógaat toog waxtaan loolu nag day aajoo communauté bi jóg avant tout ndax loolu communauté bi moo koy lijjanti ànd ak da ànd ak daayira yi war a mën a dem beneen bi mu di gone yi nga xam ni moom la sëñ Cheikh tudd su ma paree jox kàddu gi boo leen xoolee lu ci ëpp ñun dañ ci dul def constat euh, li xew Toscana ci gone la jóge dem ci assistante sociale euh, ñun euh, côté boobu ñun sénégalais yi Euh, dinaa ko wax waxaat ko dañu bëgg lool wut ndimbal ci assistance sociale gis nga assistance sociale yooyu moo ñu commencé nekk benn boomerang boo xam ni dafay dellu si ñun parce que assistante sociale boo demee jox ko sollicité ko sollicitare ko benn problème da koy bind denc ñëw commencé di dugg sa biir vie familiale di saytu say doom di xool fu ñuy dem ndax dañu dañu dañu dañu perturbé wu euh, yooyu daanaka mën naa ni bokk na ci li commencé yàq suñu société est-ce que jaaduwul tam léeg-léeg ñu ciy waxtaan sëñ Ablaye foofu laa lay dugalee daal euh, euh, defe naa ñu dugg ci deuxième pàccu émission bi sëñ Ablaye. <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam Diop. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. sallallahu ala muhammadin wa radin xadimi. Eh, sama mbokki jullit yi sama mbokki taal bi maa ngi leen di ziar suñu Pape Demba ñu ngi dollu ziar si ñu ngi leen di waaye mm-hmm. di ziare eh, sëñ Cheikh Mbacke Mboub mi ngi géwélu Xaadim Rasul mi nga xam ne mooy doogu génn léegi nga xam ne dañu yàlla boolee moom lu jiitu juddu la waaye ñu wax dëgg ñu feddali ko ci ay daara yu bari yoo xam ne bokkoon nañ ko fa di ko jàngee. Mm-hmm. ba nit ñëwee fii ci réew mi daje ci eh, kii bi nga xam ne plateforme bi nga xam ne wax dëgg moom it liggéeyal sëñ Tuubaa ko tax a jëm rajo xasida online. Eh, rafet bu baax doom ak seen taxawaay yéen tam ci émission bi waxtaan déglu nañu eh, récit bi mu def lépp wax dëgg yàlla lépp di dëgg lépp di ay constat yoo xam ni benn bu mu ci jël rek mu am solo waaye malheureusement li ñu dal fii Italie mooy eh, gàmmu yin am ak màggal yin am ak cant yin am lépp waxtaankat ba fay waxtaan lam fay wax amul benn point bu ci jël def ko un plan d' amut da ngay waxtaan wi de am na solo ah waxtaan wi de neex na bu ñu fa jógee jeex na ñu wëlbati ko dajewaat ci beneen màggal togg suñuy salade ak suñuy ginaar lekk eh, daf jàng la ñuy jàng waxtaankat bi ñëw ñu jóg même c'est la routine loolu ci lañ nekk booba léegi donc euh, gestion bi itam la même chose c'est informel ni ngeen ko waxee euh, mag ñi bu baax lañ ñu xàllu yoon te li mooy yoon wi mais nag toftal ci ba ñi nga xam ne xëy na yër nañ mbindum ndeyjoor li ñuy wax mbindum mbindum càmmoñ boo bindee mbindum càmmoñ yow mag mi gone gi jëlal lu ko ci mbindum ndeyjo ci mbindum càmmoñ ndax euh, contrôle yooyu ñëw ëllëg xam nga euh, sëñ bi dugg léegi sëñ Abdoulaat mi dugg doy wax ci par parma niñ ko nose euh, ñun ñit parce que bon ma ma fàttali leen ni daayira Touba Monza bi ngeen di waxtaanee man mi fa laa ne wama naa illa ma alim naa luñ fi mën a wax lu ne mën nañ ko seede tuuma yi mu indee yëpp lu leer leen lu xam naako ko ndax lépp xam naa ko fa lay dund fa lay sama njaboot gi ma nekkali fa la ñuy jàng ji donc benn contradiction bi ci njëkk am rek mooy xëy na instrumentalisation am na euh, yéen ñëpp xam ngeen média ni muy doxee euh, ki dóore duñ jël image am ki fay la ñuy jël image loolu mooy mooy mooy liy dox fii mooy instrument instrumenté maanaam li naan nit ñi xamuñu ku ku ku tooñ ku fay lañ xam donc moment bi muy fayu nag xëy na loolu lañ ci yitteel ñu jël ko xam nga média ni muy dox ñun ñëpp xam nañ ñun xëy na am na ñoo xam ne leen ko expliquer mais ñiy dox ci média xam nañ ni bala ngaa def benn émission bu jàkk rek naam dagg yi ciy dagg ak càkk yi càkk yi ñaata càkk laaj un deux trois demal ak c'est-à-dire am na loo xam ne ñu wax fori onda buñ la ko génneelu da nga naan waa léegi kon gaañi dafa mel ni dañoo dem marché jënd géej jënd kecax jënd façon yooyu mu xëeñ loolu nee dugal ci saal bi waaye ko soxna si dugalee ci wàññi ba yàq ko indi ko ci saal bi lañ koy indee mu mel ni lu lu baax fekk denrée première ak la ko indi ak coono ya feeñut feeñut ba tax na li may faral di wax soxna yi buñ toggee ba ba noppi euh, euh, buñ indee nu mu mën a mel bu weexoon xoromet bu ko wax mukk ci bis boobu bis ndax lay doonoon yéene mooy mu jàkk kon nag mooy mooy ngeen jéggal ma ci métaphore bi mooy mais mooy résultat wu média nga xam ni man nañ cee jaari def mal information mën nañ ci jaari def désinformation te la majeure partie loolu la mm-hmm. loolu la donc parce que man mënumaa consider man ma jóge fii damay daw trente kilomètres doog a àgg Touba Monza donc am naa lu ma fa gis am naa daara yu ma jege mm-hmm. mënumaa gàddu aussi sama njaboot yóbbu leen est-ce que damay seetaan ñu leen mal di traité mm-hmm. ginnaaw man sama kër sax du ma leen dóor donc c'est paradoxal donc méthode bi xëy na ak li ndax euh, dispositif yooyu sax mu toll nii ñun jëloon nañ ko man bi bi kaaw si ñaan jóob bi amee euh, xaw ma woon sax si ñaan jóob la wax dëgg yàlla damaa dégg toskaana rek ak xam nga ni ko euh, canal télévisé yi waxee ma première chose bu ma def mooy dama dem ci daara ji ni leen kat sama gars ñi ma li ma dégg mu xew te ñu ngi ñi ngi ñu ngi l'islam lu metti ndax nee dañ leen di jàngal alxuraan mais dañ leen di bundu xataal ngir ñu xam alxuraan te c'est le c'est c'est le contraire si ñaan di ku ko xam-xam ni nitu jàmm la mhm. man leen nag léegi kon bant bi nga xamante ni nii dañ koy wanee araf yi ci tableau bi sax man leen bant yooyu nañ génn daara ji mhm. malheureusement xëy na fekk na ñoom amoon nañ image bëgg ba mhm. lool bu amuti ñu ngi indexé daara ji ñu ngi indexé yeneen parce que li nga waxee y a un premier cas y a un deuxième cas ma ñaanuma yàkkal ma ñaanuma ko yàlla mais il faut prévenir un troisième cas dëgg la waaw mieux vaut prévenir que guérir la tubaab di waa maanaam euh, fagaru moo gën faji mm-hmm. mm-hmm. donc euh, ñu bàyyi ci xel bu baax a baax peut-être euh, xupp ba ngay xupp ak alxuraan ni mu demee booy jàngal nit mu tëdd dugg ci bopp bi façon yooyu cest dire yow mi koy jàngal aal gi ngay am bariwut ñu ko mën a contrôler bu boobaa nag xëy na na ngay jëfee du arrangé ki nga xam ne moom bëggut loolu ci réew ni ngeen koy waxe ñu war a wu ci yenn loi yi donc war nañu wut méthode beneen boo xamante ni ni ko sëñ Pape ñun demoon nañ ba intégré loo xam ni dafa mel ni mm, du rek jamo yam ci jàng ni mu ko waxe ni da ngay gis koo xam day tari baqara ba naasi te du côté dëng dëng gis nañ ko ci réew arab yi gis nañ ko mais mm. jéem a intégré sax benn façon terbiya boo xam ne bu woyof lay doon du doon sax boo xam ne appliqué parce que terbiya moom euh, la ci njëkk mooy dañ daan dañ la daan wax naan da ngay da ngay da ngay da wàññi sa lekk da ngay wàññi sa naan da ngay wàññi sa nelaw da ngay dëmm sa nag yi bët mooy bul xool lu sori sa kanam ndax man ngaa gis loo xamante nii Euh, lu bànneexu la te mënoo cee jot boobaa mu andi la problème. Mhm. te foo foo foo fo foo foo yëgee ne taxaw ngaa ko jàpp nga dem yeesal sa njàpp c'est-à-dire àgguñoo sax gone yi. fan tàmbalee tax mooy jëm leen a xamal lan kan mooy sëñ Tuubaa jëm leen a xamal lan mooy yoonu sëriñ Tuubaa jëm leen a lu tax kilifa ñëw toog ci kaw ñun ñëpp ñu bokkandoo toog ci suuf cest di leen expliquer lan mooy yoon wi di leen expliquer lan mooy réalité Sénégal parce que ñu ci bari ci réew mi fii lañ juddoo. mosuñoo dem Sénégal wala bu demee Sénégal lu néew la ñuy wax ak ñoom ci yooyu xamuñu loolu lan moo waral man moo liggéey sama xaalis ba mu lew xaalis ni mu neexee nga xam ni euh, yëfar beeg julli beeg seen xam ne ne xaalis moom dafa sax ci ruub nit ñëw ma man koo nuyu bokkaale ko xaalis saari loolu lan lay wund lan lay jar façon yooyu donc amoon nañ méthode pédagogique boo xam ne ki ñu soo dimbale sax euh, ab médiateur culturel la te sénégalaise la te ay texte italien la ko doon bind nga xam ne bu ñu jàngee alxuraan ba noppi dañuy jël trente ou quarante cinq minutes di ko intégré tubaab euh, xale yi te dañ ñoo doon intéressé ndax question yi yi ñuy développé ñoom ñoo na koy posé ñoom xale yi. Mm-hmm. malheureusement filmé wuñ ko ngir wan ko man war wan diaspora. mais parce que li ñu soxla test la woon boo xam ne tàmbali yaa dafa ñu yaakaar naa trois ou quatre séances yoo xam ne chaque dimanche noonu lañu def yenn trente minutes euh, ndaw si mooy indi soxna si mooy ngeen dégg la mooy indi texte boo xam ne italien la mais da koy basé ci alxuraan. par exemple texte euh, la patience. muy mm-hmm. lan muñ Mm-hmm. lan mooy patience indil la texte boo xam ni c'est-à-dire boo ko jàngee da ngay naan kii dafa dafa jàng alxuraan complètement te te jàngut alxuraan sax far nag moom mm-hmm. wala mu indi la la famille bi mu mujjee jàngale mooy la famille lan mooy importance la famille dans la vie est-ce que yegg nañ ci nit war a mën a demal moom bom dong boppam soxlawul famille mm-hmm. booba ci la man may bari naa ci li ma leen xam nga suñ borom bind kenn nit jafewu ko ndax lan bindoon na aadama te sosewut ci kenn Mm-hmm. Hmm. waaw soxna Awa ñëw man naa ah, man leen pourtant ba ci réew mi ñu nekk ki ngeen di wooyee Jésus te alxuraan di ko wooyee Insa ibnu Mariam man leen amut baay donc suñ borom tewu ko mu bind koo xam ni du am ndey ak baay. Mm-hmm. mais lu tax mu tax ca ndey ak baay expliqué leen lu mënta ñàkk bu léegi bu ndey ak baay xewee rakki ndey lu muy doon rakki baay lu muy doon si kii ni la kii bàjjen la ñoo ji famille cest dire égoïsme bi ci tubaab dañ ko doon c'est-à-dire ñun vraiment amoon benn pédagogie boo xam ci loolu lañ doon dem mooy socialiser la personne mm-hmm. l'humanité du mm-hmm. woon sax nit ki rek en tant que nit parce que tam li ñuy wax euh, léeg-léeg nga gis koo xamante ni kërëb kërëb ah sëñ bi si man d'accord sëñ bi bëgg na taal bi mais bëggut ab dof daal dafa bëgg koo xam ne dañ koy xalaat la mm-hmm. koo xamante nii du rek euh, en tant que tête en haut les jambes en bas déedéet da nga ci boole doté d'un xel am am xel moo xamante ni ndax alxuraan wax afala taqiluna mooy ndax du ngeen xel c'est-à-dire am nañ benn matière bi boo xamante ni c'est gratuit te yàlla ñu ko jox nit warut a xalaat à nos places il faut ngay nit wax leen ba ci ak njambar ñom yi lu tax ñu doon ay nit ñul ba pare bëgg dess ci ginnaw ci école bi andil leen beuyitu masalikul janaan suñ ci wa fa bind ni der bu ñul wara waral manqué xel nit c'est-à-dire dañ doon intégrer d'une manière bo xamanteni pédagogie lo xamni xam ni yaakaar naa na sax ci daal yoo xam dañ ko def kon liñ joxe ci média bi buñ jappé ni nonu la c'est-à-dire lool lay bañ c'est-à-dire ñi japp rek euh, dañ leen ay mbokkaa rek ñu jël ah donc dédé déedéet demewut noonu ñun amon nañ benn méthode bo xamni ak nos bo xamni Kairou Monza yaakaar naa nosu na nosu goo xam ne ñi fi jot a ñëw ñëpp mën nañ cee joxe ay firnde maanaam ba ci problème mu bu bu xoolee gestion. Mm-hmm. nii ko sëñ sëñ sëñ Abdoulaye waxee ci ci parlement ñun ñuy ñëpp kenn ku ne da ngaa jox say document jox say code fiscal luy dugg ak luy génn kenn ku ne xam na ko am nañ un rapport bien défini boo xamante ni loolu lépp maanaam ci ci biir taali bi la nekk c'est-à-dire donc li sëñ euh, Cheikh Mbacke boobu daan wax naan Italie day suul ndaanaan jàng maanaam jéggaani wuñ ko fenn lépp ci biir waa Touba Monza la xewee Mm-hmm. ñoom gestion boobu ñoo koy def gratuitement te liggéeyal Sëñ Tuubaa rek lañ ci jublu te c' exemple loon ngir yeneen taalibe yi mu doon mag yi ñoo dool yo am ni fu mu mm-hmm. dal day taas ñu mën a jàngale loolu xam ni mën nañoo yor daayira mais boole koog modernité boo xamante ni dana mën a dox ci luwaay réew mi mm-hmm. donc aussi c' est un cas isolé malheureusement moment biñ ko soxla ñoom am nañ boobu image ñu jàpp ni dañ leen brutaliser dañ leen a maltraité te tam Eh, loolu dawat dafa bokkul sax si njàngaleem sëñ waa dama wut noonu. Mhm. dama wut noonu mënoo tuddee daayira mi daayira sëñ Tuubaa la. pare nga fay dóor gone wala ginnaaw ki fi mujj di sëñ Saaliw moom ñi mu daan defa ak gone gis nga ko ku mas a gone sax daanaka doo fa yendu man gis naa ko. Mhm. ngoon goo xamante ni ci ca njaareem eh, góor gu doon xaaji gone yi bëccëg. mën naa la wax aw turam mais sëñ Saaliw da ko xaaji ni ko demal tëri ndax boo boo te bëccëg la. Mhm. bëccëg la ko tëriloo ni ko bu bu la gone yi gisul doo leen xaaji da leen donc ñun en tant ku dund loolu c'est mënoo brutaliser ak gone. Mhm. te it mënoo da làkk sa gone door door door di door doomu jàmm mënta nekk. jaaduwul de. te li ma leen di wax nun en général euh, ñaari saal boo demee daal ñaari saal lay doon benn saal bi ci lañ jàngal benn saal bi géniteurs yi ñoo fi took sa à dire mënoo fee def lu jo gone jooy te te parame boobu mënta nekk. en plus sax euh, yéen yàlla daf leen mayoon defe naa ni seen page Facebook bi lépp ngeen daan wane. léppay génn ñun. on a man dama leen doon suivre vraiment ak euh, attention gis relier bu baax bi euh, mais mais ah, mais sëñ Ablaye est-ce que yaakaaroon ni aussi benn benn yooyu jaaduwul ñu toog parce que ñun man man bi mu changé boo xoolee bi loolu xewee ba léegi au niveau de la Toscane ñun fii ñu ngi commencé am changement parce que ñun suñu daara ji ñu amoon fii dera dañ ko mujjee soppi wutal xale yi ñoom it seen association nga xam ni. gone yi dañuy mun a sax taxaw bés buñ ci tolloo tout tànk yi war a mën a dem ñoom ñoom ñoom demal seen bopp am statut boo xam ne dinañ ci mun a parce que nag mënoo jël aussi lépp euh, wékk ko ci sëñ bi euh, te pàcc yi dafa yaatu tey jii tubaab yi mën nañu nangu doppos koola mais tey jii xam nga ni boo nee da jël par exemple euh, kër sëñ tubaab bi dafa jàngale diine rek duñ ko comprendre te boo xoolee ñun suñ daayira yi maa ngi koy wax fii dañoo xool rek maanaam objectifu daara ji jàng alxuraan jàng xasida euh, te war a mën a taxaw investir ci ay gone yoo xam ni dañuy toog sax seeni waajur mënuñoo euh, amuñu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu war a ñoom jël sociale bi jox leen lu mel ni bourse ñu dem jàngi ba nga xam ni bu ñu dellusee dañuy serviraat communauté bi est ce que jaaduwul ñu toog euh, poser question boobu daayira yi toog benn benn yi ñu arrêté ko ñu ne nañu seet ban méthode mo wara mëna doxal ke Seigne Touba yi ñu doxal ko Seigne Ablaye. waaw laaj nga bu am solo waye fiñ tolni Seigne nii euh ku dimbali wut baye bi ndax di nga dimbale dom ji parce que daayira yi faaw ñu seet ni muy doxé majeure partie daayri ak majeure partie yiñ fi organiser yépp nak la wax baye mo ben ñaata lañ ci def ci jëlub sàll ñaata lañ ci def ci jëndi ginar ñaata lañ ci def jënd fu ñaata lañ ci jëf ci jëndi boisson yoo xam ni boo demee ba loola jaax lu ci bari dañ koy tuuri mm-hmm. jàng alxuraan nambaan jàng alxuraan jàng xasida nambaan waaye léeg-léeg dégg ci nga wax ngeen léeg-léeg lem kayit ya fee lem téere ya fee wax ñoom ci li ñuy dund au quotidien day baax mm-hmm. sëñ Pape wax na ko léegi conférencier ba ngay jëlee ci Sénégal fay xaalis fayal ko biir mu ñëw mu pare nga ba koo yewwi la muy wax lépp baax na mm-hmm. waaye est-ce que dëppoo naag noonu li ñuy dund dëppoowut mm-hmm. la ngay dajale muy xaalis bu baree bari nga jël ci saal fay ci par exemple quinze mille euros mm-hmm. ci discours yoo xamante nii sëñ bi euh, répétition daanaka la majeure partie lay doon d'accord même si la répétition est pédagogique lu ci bari dégg nañ ko lu ci bari xam nañ ko parce que damay wax ni gaañ yi xam ngeen lu ñuy tardeel man leen ba nëgë ni dañuy jéem a waar ci sëñ Tuubaa ñun xamaguñu sëñ kon kon duñ dem mm-hmm. ñun nëgë ni waroon naa fekk ñu dugg ci saaru sëñ Tuubaa bu yàgg di wéy ay dañ lay wax ne la sëñ bi fee la jaar sëñ bi na ko ko boole sëñ bi gay nekk sëñ bi loolu ñun ñëpp xam nañ ko léegi la ca def mooy lan moo taxoon sëñ bi defi loolu c'est une grande question kenn du ko laaj mm-hmm. daayira lan moo taxoon ñu so dimbalante mooy sëñ bi Mbàkke dafa waxoon ni dafa waxoon ni bun daayira bi buñ ko xasee sos ba nga am ciw carte ma am ciw carte sëñ Pape Makhtar am ciw carte ñun ñaar dañoo war a mel ni ku bokk ndey bay mm-hmm. sa bët du xonq ma koy xaar sëñ Pape Makhtar moom bëtam du xonq ma koy xaar te yokk mm-hmm. bu dee métier dafa am ci biir loo soxla dam nga koy defloo ki ko man ci biir dayre bi loolu mooy dimbalante mm-hmm. bu ko defee moom tàllulut loxoom yow ci ci ñaqam nga koy fay. Mm-hmm. te du tee daayira dox. Mm-hmm. dee laaj lu ñu am di ko def fu nu xam te bu ngeen dajee ngeen leeral waa leeral gi bu dee yow mi nga yow yaa war a leeral te jàngoo dara noo koy leerale mm-hmm. bu dee ñi ngay leeralal ñoom jànguñu arab jànguñu alxuraan nan nga koy leeral ci mbindum arab ñi war a ñëw di contrôler di muy les les agents de la de la finance et tout ça buñ ñëwee arab bi nga leen di jox ñoom soxla wuñ nga leen koy liiral de jox ma document bi lañ lay wax. Mm-hmm. kon intégré euh, xale yi fi jàngee parce que léeg-léeg ma dégg nit ñi nii dañuy war njëkkanteeg gone yi ci tubaab yi waaw mais xanaa terme moom njëkkante dañ ko fàtte mooy lan. Mm-hmm. njëkkante dañ koy teg dañ koy teg fële. Mm-hmm. yéen ñaar ñëpp ngeen jël eh, ñu leen bisimilah ku fa njëkk yaa ko jël. léegi gone gi man man maa ko yor gone gi maa moom gi. man mm-hmm. la ko yàlla dénk. kon kay bi mooy njëkkanteeg man ci ci ci gone gi. Mm-hmm. man maay so maay responsable mm-hmm. kon li may wax jàng jàngal jàng alxuraan xasida baax na lool mais seet ñi nga xam ne dañ koo yellool ci biir mbooloo mi te mënuñoo talal seen loxo di laaj nga jox leen ko moo gënal yàlla foog gënal suñu tubaab mi ngi koy defal foog ndax mba mbooloo yooyu amul kenn ko fay dem ba xiif amul kenn koy dem ba kii sëñ bi nañ dajaloo rek defar café bu ci njaayee nii raxee ñu defar bañ ñu jox leen <laughs> la ca des ñu seet ko seet sëñ bi te am na ñu ko ñoo xam ne ñu ngi biir daayira yi wóor na sëñ Tuubaa bañ koy mën daan teg di kii waaye buñ ko dema kenn nemmeeteku leen sax xam ne mm-hmm. léegi nag ginnaaw yow da ngaa euh, loolu da ko bañal bàyyi léegi nan ngay mën a créer ay bourse ko jox ay gone bàyyi ci sa tànk Mhm. kon am na loo xam ne xëy na buñ koñ tàmbali woon doo yegg si sax ba ci gone parce que bu boobaa kee dana dana mënal mais bu nee social nga yëkkati euh, trente euros ni waa dimbale nañ koy mhm. social ñëpp xam ko te joxu ko dara ndax trente euros mais bi jëlal jox ko mhm. muy lu substantiel yoo xam ne dana ci mën a def dara mais trente euros ak vingt cinq euros lu man ba pare ñu wilikaan la ko defee nit ki nag <laughs> fa mu ko waroon yaakaar dafa du dem sax ndax loolu da ko dootu ko jaral kon war nañoo war a seetaat doxin wi daal doxin wi ak li nga wax ni ni li ñuy boole la nii lu lu ñu booloo yombut boole mbir yi moom yombut ndax euh, njiit gi nga xam ne nit dañ koy xëcc. daanaka la si. la preuve la preuve mooy koo ci wàcce dootoo gis daay. Mhm. koo wàcce mu met wala mu dem créer benn clan boo xam ne li muy bëgg mooy wut ay bant di ko def ci pneu daayira yi rek bu bu mu dem ndax buñ réussir sama perte la. Mhm. te àdduna dox na wut noonu du noonu. seetal njiit yoo fi yoo fi yoo xamoon yu bari ci yenn daayira yi boo leen wàcce dootoo leen yi leen yëkkati woon kon mhm. changement génération dafa a am boo demee ba leer na ne kat yow sëñ bi lu dox rek nga bëgg mais man ku ko doxal rek ay man danga may wàcc danga may danga may wàcce coono bi. Mhm. kon mbooloo wi c' à dire am nañ mbolo mais ben wul. hmm te benn berk yaakaar naa mo moy li ci am solo moy tax li ñuy señ bi bolé ñu man ko bok ndax kenn mënu ko sédo daayira bañ koy fa bañ koy sos lool rek la manam ngir mëna delu ci suñu aada suñu cosaan mooy jàng alxuraan ak jàng xasida tënku ci ndigalu señ bi tënku ci ndigalu señ bi nak la ca jitu ni wo señ murtala daan wax na ngeen tënku ci loi rew mi ngeen ne. Mhm. waaw jéem a moderniser daayira bi ci fexe daal ba parce que tam liñ bañ rek mooy bu ne euh, saaraan ba dugg ci mbirum nasaraan si te loolu wax dëgg yi doon man may faral di wax gone yi nga xam ne ñu ngi léegi leen digg si biir daayira yi ñuy dàqee ko bu leen leen sax tere dàqe bi bu leen tere coow li ndax dàqe ci daayira moo gën dàqe ci orateur yi ba ndax ñoom wax dëgg seen yitt dëgg mooy mooy gone yi nu ñuy def ba mu dugg ci parce que ñoom amatuñ mbooloo juddulootoon ay gone donc lu amut mbooloo amut ay gone amut futur te gis nañ ni mi ngi wàññeeku te l'islam moom day màgg mu màggee fii ci seen réew mi nga xam c'est le de la du christianisme du ndam ca ñoom kon ñu nit ñoo war a set yeneen méthode yoo xam ne dina mën a ànd ak réew mi te loolu du ñu ko tere ndax ñoom euh, Pape li ngay wax da ngay yor gone fii lundi ba vendredi tubaab bee ko occupé bu pare ñu tàllal ci benn jour boo xamante ni ñoom seen volontaire yooyu neen dañuy def dopp dopp scolaire dañ leen jàppale ci njàng bi ñu pare ñu wutati ay ay ay assistance xam ne léeg-léeg ñu andil la ko ci maanaam andil la bi sax ci ne la léegi da ngay signé ndax ñoom war nañu mën a toog toogandoog des orientations te at neneen lañ koy tuddee waaw waaw pour xool euh, xelu xale bi waaw persor mi ngo neneen lañ koy tuddee sama classe bi yëpp duñ ko xam nga signé yaa signé de léegi ñu convoqué gone gi ñoom ñooñu di boroomi xel xam ni ñuy tëralee plan ñu togg a gone gi moom dong te doo fekke hmm. mën nañ ko waxloo sax lu mu bëgg ta wax ñu signé ñu ne gaa ah, gone gee ko wax mën nañ ko waxloo est que gone cest euh, am na loo xam ni sax li ñuy gone moom du du nar maanaam du fen hmm. rawatina xale yi gone yi hmm. ñi nga xam ne sëñ bi buñ toogee loo def démb rek mu ñu mel ni ma ñoo defoon boo taal loolu bu dee gone rek ca yam nga mën mais am na fi mag ñoo xam ni ko Pape waxee mais sëñ bi rawatina ay soxna sëñ bi dañoo yaakaar ne assistance mu jaabante ba ñu defa fi moom ndam la ci ñoom. Mm-hmm. ñu dig leen mën nañoo dem sax ba sos loo xam ne dalay leer dara amu ci nga ni sa borom kër dalee maltraité. te dara bu jàpp ni lañ lay jox faveur la boo xam ni da mais sawara ngay lekk sëñ bi. Mm-hmm. luñ lay luñ lay jox kër waa nekk woon ci kër. Mm-hmm. lan lay jox ñu ne ñoo lay joxum dugg ñoo lay waaye si si borom kër la mu am mu mu mu néew ak a bari daana ko bokk yow ci ngor. Mm-hmm. kon lan la sa bët di war a jël ba ngay dem di jaay sa ngor jaay sa diine yàq sa njaboot te assistance sociale yi ngay gis rajo sëñ bi dimbale nit ku ñuul taxu leen jóg bu doon loolu ñu defal ko seen bokk yi ñu dëkkal. Mm-hmm. demal ca gaar ba ñaata italien nga fay fekk yoo xamante ni kenn raxu leen seen maam yëpp li ñuy wax yàq bu rëy ci lañ bokk. ña mm-hmm. nga fay tëdd kenn romb leen kenn dimbalu leen bu sedd bi ñëwee la ñuy ubbi gaar ba ñu ñu jeexal comme mm-hmm. mënta dimbale kooku ndax yow mii nit ku ñuul te biir na leen bëgg la dana la dimbale kon am na ndëgg sarax lu mu la laal loo xam ma ngi ca kanam ci bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. waaw sëñ maa ngi jégg na te euh, vraiment mat na sëkk. Euh, li ma ci jaaxal rek mooy euh, euh, euh, a donte booloowuñu tam mu ne suta toog di xaar parce que man maa ngi koy wax ni tubaab mbooloo rek la ragal waaye it yaa a une réponse politique et une réponse maanaam parallèle boo xam ni tey jii sunu mbokk yee nga xam ni yoon mi ngi leen topp taxaw ba ci war yëpp danañ ko def incha allah parce que fii niñ ko defee yéen ngeen ko defee rek ci wàllu taxaw bi waaye it man dama yaakaar ne euh, dafa war a am réponse politique bu communauté sénégalaise bi ak daayira yi jóg war a def du lu ñuy def nag mu jëm ci xeetu marche wala déedéet réponse politique dañuy war a jóg taxaw kilifa yi nga xam ni fii ñoom la ñu reconnaître ne ñoo yore baatu communauté bi euh, moo xam sunu ay dépité moo xam sunu ambassade jëwriñu daayira yi ak jëwriñ ci ñenn ñi nga xam ne ñoo fi taxawal association yi loolu nag Pape Matar yow mii yaa ngi ci da nga ciy am responsabilité ndax euh, kuréel nga yore boo xam ni daanaka ci Italie yëpp la wër euh, hmm. est-ce que jaaduwul tamit ñu jóg hmm. taxaw jéem a toog maanaam euh, waxtaan ndax it hmm. am na moment boo xam ni day jaadu ñu jóg toog waxtaan ndax it ñooñu dañ leen di dañ leen di instruire léeg-léeg ci liggéey bu ñuy def ak plan bu ñu taxaw waaye nag bu ñu jógee taxaw ni leen nag communauté bii kat moo fii parce que boo xoolee communauté sénégalaise mooy presque presque principal interlocuteur ci communauté extra étrangère yi euh, ak mm-hmm. ak governo italiano tey jii mm-hmm. man dama gëm ni lii dafa nar a nekk benn crise politique boo xam ni ça peut créer des problèmes est-ce que jaaduwul Euh, euh, euh, ñu jóg am ci taxawaay ma joxaat leen kàddu gi ñu defaat beneen tour doogu tëj incha allah sëñ Pape. Mm-hmm. waaw sëñ Pape macha allah may rafetlu kàddu bi ak xóotal bi sëñ Ablaye def ci ci yi macha allah ñu leen di mastaw bu baax a baax ci li li nu bokk ndax nag moom ku laal communauté mouride rek ñun ñëpp nga laal kër yi moom kër goo ci laal ñun ñëpp nga laal. dëgg yàlla ñun ñëpp ci war a jóg am ci taxawaay ak ay xalaat moo tax sëñ pap njàngat boobu nga nga wax noonu dafa war a doon ñaari ñaari ñaari ñaari waxtaan maanaam politiquement ñun war nañoo jóg ndax bi nga ma ko waxee àjjuma man lu gaaw gaaw commencé na naa di informé wu au niveau du ministère de l'intérieur département bi nga xamante parce que département yi dañoo bari parce que même département immigration. Mhm. bi ma laajtee dañ ma ni ñaari ñaari nit lañ fa teg ñaari nit yoo xam ni ñoom ñoo bokk la ñuy def. Mhm. donc ndax immigration yaatu bi mu yaatu. Mhm. Euh, donc maa ngi gëstu ci ban anam la ñu mën a bindee ak euh, ka nga xamante ni moom la ñuy euh, mooy doon suñu interlocuteur pour mën a après jot incha allah président wu confédération bi. Mhm. pour mën a toog ak moom euh, mën a convoqué waxtaan ak ak son excellence l' ambassadeur euh, pour que ñu mën a def benn waxtaan boo xamante ni day jublu ci loolu. Mhm. mais dafa am benn euh, benn njàngat bu ma def boo xamante ni même fii au niveau de Parma aussi am nañu situation boobu xam nga daay daara jàngal alxuraan tubaab bi xamuñu ko. Mhm. donc loolu ñun mënuñu ko régler. kooku mhm. il faut faudrait une ben intervention politique mhm. parce que tubaab dafa xam jàngale booy jàngale euh, dafa war a à l'école mhm. euh, am ay autorisation ñun bu fekkente ni dopposkoola lañ koy tuddee aussi ñu xam ban anam lañ koy remoduler parce que sinon loolu it mën nañu indil gàllankoor parce que dajale ay xale Euh, lu mat ay quarante cinquante xale ci benn chambre euh, ñu lay indil problème de sécurité wala ñu lay indil leneen ak leneen. problème hygiénico sanitario. problème hygiénico sanitario te ku ne xam na ni jamono yi euh, loolu débat bu xaw a doy la ci jamono yi ñu nekk rawatina ñun suñu biir kër yi kër sëñ kër sëñ Tuubaa yi am na ci yoo xamante ni wax dëgg yàlla boo demee ca waañ wa rek. da nga lay leer ni fi age la bu fi ñëwé tëj leen lay wax yooyu yëpp manam moy waxtaan wi nga xamanteni mo jëm ci suñu biir ci suñu interne ñun lu nu wara a lu nu wara pencho lu nu wara organiser euh wax ci suñu bop leneen la ca dess nak muy walu politique bi loolu lu jara waxtaanee la benen bi ci dess amna benn émission bu ma ko mësa wax fi dafa jaadu màggal yi anam bañ koy def suñu Ablaay wax junj ko léegi ñaata ñaata ñaata ñam la ñuy tuur ñam yi du ñun ñoo koy jël tuuri ko de tubaab bi ñooy taal seen oto taal seen camion yi ñëw foofu di ko roñ di ko yóbbu gis nga noonu ñu koy roñee di ko yóbbu dañuy xam ni ñoom même ci seeni feet ñoom duñu tuur lu ni toll dañ koy jël di ko waxtaanee te ñun kër Sëriñ Tuubaa yi gën wàll gi yëpp ay onlus lañu xam nga onlus yi dañuy am ay agivolation ci mbalit mi ak yeneen ak yeneen donc ciow lolou ñuy jël di ko def passe parole muy jall ñuy gis ni ni ñi yaxé ñam ak ni ñi touré ak ni ñuy defee nangam nangam man dama gëm ni magali su jotaté parma sa damay joxé exemple rek ci euh, côté bi parma sa radio emilia andando set sal bi gëna a mucc ayib ci gox bi ñu jël ko wala stade bi mu gëna a mucc ayib ci gox bi ñu jël ko invité ñetti préfet yi yow neubatul neublo li ngay def mais bo tëjoo ci kër gi rek da yow bu la tubaab bi wooyee do dem da fay nduru une forme de guettisation que ñun nepp ñu li sëñ bi di def parce que dañuy liggéey pour fessel li nga xamanteni ni bi mi ngi koy def te mi ngi ko doon def ci ni ko tubaab bi di woowee da ci ci ci ci jàmm ci passé yëkkatiwul xeer yëkkatiwul yëkëti wul lenn ñun ci dynamique bobu la ñu continuer di ko def euh, mais xeyna na euh, forme bi mom mo xawa xawa taga a tagga témbe te lenn waralu ko rek ludul Euh, war a mën a toogaat ñu accepter war a mën a toog parce que tam il faut ñu comprendre que ni euh, ñi ñi ñi ŋànk euh, kër yi ñi ŋànk daayira yi il faut qu'ils aient aussi benn benn humilité bu ndaw ñu jéggal ma ci humilité bu ndaw bu sew boo xamante ni dañuy xam ni ah il est temps ñu toog waxtaan kon loolu dafay jaadu ñu toog waxtaan parce que suñu bopp la ñuy waxtaanee suñu suñu bopp rek la ñuy defaral Euh, waxtaane forme bi nga xamante ni noonu la ñu bëgg a kër yi ndax na nanu yoree Monza bu nu ko yoree Parma yore ko beneen dëkk noonu yaakaar nañ ni problème du am fenn te tubaab bi du am fenn fu mu la bëttee solidarité bi nga xamante ni mais nañu xool statistique yi commune bi ñaata sénégalais lay dimbali mais kër kër Sëñ Tuubaa gi ñaata sénégalais la dimbali yu ndóol yu am problème liggéey liggéeyuñu am ay problème am ay invalidité amuñu salaire amuñu dara est-ce que ñu ngi leen di dimbali nañu xool statistique yooyu donc man je pense que euh, instruments yi ñu ngi fi mais xam nga euh, la la am na émission bu ma fi wax ni organiser les non organiser dafa xaw a jafe mm-hmm. waaw te ñun on fait partie des non organisés dafa neexul a wax nag dafa neexul a wax mais euh, sëñ moo Moor ñaata yoon la fi ñëw di ñu wax ne ñu defee doxee leen nii doxee leen nii doxee leen nii ñaata yoon yaakaar naa ni at mu jot bu fi ñëwee ñu diis ko benn waaw ñu diis ko euh, benn problème boo xamante ni daf ñu ci xelal wax dëgg yàlla jaarale ñu ni ñu wax leen defee leen ko nii defee leen ko nii c'est-à-dire y a problème d'application aussi ci ndigal yi nga xamante ni ñu ngi koy jot yoon yi nga xamante ni ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy war a dox euh, am na lu sëñ Ablaye wax léegi ma def ci jàngat mu def ma ay ree lool maanaam euh, xëccoo bi pëccoxoo bi ak xëccoo bi su ma ci su ma man maay toog man maay président bi man maay man maay nàngam man maay leneen euh, maay jëwriñ bi man maay leneen maanaam yooyu yu ñuy tardeel la rek ndax nit gi ngi nekk ci daayira euh, da ngay xool sëñ naar Diop yàlla na yàlla na ko yàlla xaare aljana firdawsi euh, sëñ naar euh, vraiment nekkul woon président daayira waaye xoolal li mu am ci ginnaawam ak témoignage yi mu am ci ginnaawam ndax est-ce que jëwriñam amoon am am na témoignage boobu ndax est-ce que jëwriñam tubaab yi xam nañ ko ni ñu xamee sëñ naar sëñ naar xasida mm-hmm. kon yëf yi du maa fi nekk maay toog man maa man maay jëwriñ wala man maay leneen ak leneen lama wax rek kenn ku ci ne ci ñun war na mën a nekk le reflet de communauté waaw donc war ngaa mën a am taxawaay ak doxin woo xamante ni ku la xool dana la respecté ku la xool dana la jox cër ku la xool dana gis ci yow communauté bi yëpp waaw kon ñun foofu lañ war a toll def benn forum boo xamante ni Euh, communauté mouride bi yëpp dañuy dajé ñu tok ñu waxtané suñu biir xool nañuy doxalee yëf yi parce que yëf yi du fi am dé gis nga yëf yi du fi am gis nga depuis bi ñu changé statutaire so secteur bi man ci la commencé am ay doute yu bari parce que terso secteur bi au niveau régional dañuy dem bay calibrer association yi nga xamante dañuy participer ci formation yi ñi def foofu est-ce que ñun suñu association yi ñu ngi dem ci formation yooyu man de dégguma suñu benn association bu jël ci budget génne ci benn dix euros wala quinze euros paasal sëñ Ablaye ne ko ah région bi de woote nañu benn waxtaan formation la demal foofu euh, loo ci jëlee boo ñëwee ñu ñu xool nu ñu koy adapté ak lii ñu nekkee man dégguma ko fi ñun daal am nañu ay këyit rek nañ ko jël dugal ko ci tiroir bi jeex na donc yooyu yëpp tubaab bi dañ koy xool parce que tubaab actuellement nii archives yi ñuy yore ak yeneen ak yeneen vraiment euh, man li nga xamante ni vraiment bëgguma ko mooy ñu jël kër Sëñ Tuubaa yépp sampal ñu fa ay télécaméra euh, ñu ci loo xamante ni wax dëgg yàlla danañu danañu gàllankoor ci yu bari danañu gàllankoor wax dëgg yàlla ci yu bari te loolu nag il faudrait une intervention politique te ñun bu soobee yàlla dinañ ko laaj man euh, dinaa woo Sëñ Ablaay bu soobee yàlla dinaa woo son excellence aussi. ak sëñ As Kase defe naa ni zone boobu tam bokk na ci waaw ak suñ aas ñoo bokk euh, ñoo bokk euh, soxna maam jaara euh, bu jógee Paris xam naa ni boo moytul ñu bisi na dinaa ko woo aussi ñu xool naka la ñu mën a def travailler ci loolu jéem a xool naka la ñu mën a bindee la ministère pour dem rencontrer leen non pour kaawu Monza kese parce que bu ñuy demit dañuy dem pour lijjanti problème mu daahira yi nekk ci Italie gi yëpp kër sëñ Touba yi nekk Italie gi yëpp parce que Monza benn la ci Toscana benn la ci waaye bu ñuy demee it waxtaan wa dañ koy tënk ci euh, daayira yëpp buñ ci yàlla dimbalee buñ ci jógee ñu mën a xool naka la ñuy def avec la confédération ñu mën a convoquer benn waxtaan bu yaatu boo xamante ni ñëppay ñëw ñu waxtaanee li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a adapté euh, bëgg ko it euh, ci ci ci ci ci daayira yi ñu bañ a amati ay yeneen gàllankoor kon suñ baax am naan damay gàttal foofu rek. Euh, jox sëñ Ablaye euh, di profité rek di ci tàggowaale euh, di ziar ñëpp di kontaan bu baax a baax ci ci thème bi ndax thème bu am solo la ñu la ñu affronté tey jii mu doon suñu njëriñ ñun ñëpp ndax moom mbir moom bu dalee sa kaw surtout mu bett la mm-hmm. yamut Monza rek am ci yeneen dëkk yi mm-hmm. donte biñ ko jël sax def ko alarme waaye euh, xubbiku bala ngaa lakkale la olof di wax euh, dafay jaadu ñu ñu càmbar ko xool la nga xamante ni mu ngi cee ñuul euh, ñu dindi ko ca pour mën a adapté wu par rapport au système bi nga xamante ni moom la ñuy dund nii vraiment ñuy jaajëfal ñëpp di la jaajëfal yow ci liggéey bi. Mm-hmm. macha allah wax dëgg yàlla onk woo ci. te it yaa koy def ni nga anam bi nga xamante ni noonu nga ko fekkee teg nga ci sax leneen nag wax dëgg yàlla. di bu baax eh, El Hadj eh, Cheikh Mbacke Diolu Xaadim Rasul ñu ngi koy ziar bu baax eh, di nuyu sëñ Modou Mbaye Thiam di ziar ñëpp di nuyu mbokk auditeurs yi di leen jox dox daje rek beneen dimanche incha allah yeneen émission jërëjëf jërëjëf sëñ xam naa hmm, damay jox si Ablaye rek wala waaye balaa moo koy jox dafa am benn hmm, soññ tam bu ma bëgg a def rek xam naa ni Ablaye sax moom du ñàkk moomoo ci gën a Euh, euh, diggante monsa ak Toscana mën naa juróomi doomu aadama yoo xam ni euh, bokk nañ ci situation bi Toscana ñett lañu ndeysaan sunu jëwriñ sa ñaan jóg ak ñaari gone yoo xam ni kenn ki mi ngi arrêté domiciliaire yi sa ñaan ak keneen ki ñu ngi leen téye boobu ba léegi Monza it ñaari ñaari usaas yi noonu may wax mbokk yi sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk fii ñooñu euh, euh, diine lañ doon liggéeyal ba ndog ndog fekk leen fa tey jii communauté sénégalaise bi am na devoir taxaw leen taxaw seen njaboot lii may wax de mën naa ni si ñaan defe naa ni juin ba léegi génnul këram avant ñu koy yóbbu pour tey ko moom ak fa nekk mu yoroon njaboot yor liggéey euh, nekkoon Euh, euh, koo xam ni fii ci toskaana ndax moom laa xam moom laa mën a gum seede ku fi juddu ba ku fi faatu moo lay taxaw waxuma nag tout tànk yi nekk ci diggante bi ku fi juddu moo lay tudd kuy fer moo lay feral ku ñuy toqantal sax moo koy defal soxna yi bu ñuy dem euh, di di matu ji bu nit faatoo fu mu nekk ci toskaana mooy dem taxawu ji la kooku tey jii Euh, buñ ko li ñuy wax fardul ay nii communauté bi waroon def yëpp moo ñu koy defal te jii jaadu na communauté sénégalaise bi euh, jub am benn taxaw bu ñu am ci ñooñu gis naa nag waa Monza taxaw bu am solo bi ñu def ba suñ amet def ci benn kii bu euh, soññ bu am solo ma bëgg rek suñu Ablaay nga laalaale waale ñu tam ci côté boobu ndax côté boobu it yi ak murit yi donte xam nañ ko sax waaye dañ koo war a leerlu ba ñu xam ni ñun ñii ñëpp ñoo war a jóg taxaw ndax tey jii ñun la ñu laal sëñ Ablaye. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape jërëjëf sëñ Pape dëgg waxtaan am lool moom waru fay gëj eh, ndax moom ay waxam day wute sama yos moom ci ci xam-xam koy teg man nag damay làmbatu rek li lay lay lay wax fi sëñ Pape. Eh, wax nga boole bu am solo mooy mooy social bi ma lay wax rek ndax lu dal ci murid yi murid yi ko war a saafara mm-hmm. euh, ñoo ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa yor kër te biir na la ni fi moom nga toog ñaari fan yoo liggéeytu rek maanaam euh, day day day day feeñ day feeñ ci li ngay li ngay li jot te ñun ñëpp xam na ni lu fi waay jotit daanaka ci taabal yi nga koy teg di ko séddale ba mu amut ci bànneexoo yow yow mi lu dul joxe bi joxe bi daal nga ci ci sa xol bi sedde xam ne def nga la la war kon nag bu dee jafe-jafe daa am biir na la ni mbirum justice moom mbirum avocat la te fii moom dara yomu fi kon murit yi fépp fu mën a nekk ah, nañ xam dimbalante daal moon war suñu biir mm-hmm. jàppalante mooy li ma leen wax ndax eh, dafay màggal dajaloo di jan mooy dool na gën waroon naa fekk daayira yu nekk li ñu yor ci budget problème bu am duñ ko sax jéggaani daayira koy saafara mm-hmm. kër sëñ Tuubaa yi nga xam ni seenu pay des na wala el ancien jarutoon sax ñu koy ñuy jëmmale ay cinquante ci dix ans murit man nañ ko fay mën nañ ko fay ci saasi loolu moom bir na ma kon nag la koy lay laaj xaalis ba mooy wax ji maanaam méthode bay laaj xaalis bi ndax xaalis ma goon xaalis dafa sax ci ruub waaye nag bu la leeree ni parce que tam nit ñi xamuñu xamuñu beru fenn di def fa sa mbaxloo ba nekk lañ jàpp fa la fa la mbir ma nekk fekk am na benn benn yoo romb yoo xam ni boo ko defee rek am ci ngërëmul yàlla waaye fekk fu bàq bu tooy ba noppi ngay rootum ndox di ca sotti moom am na leen lu gën nañ seetaat suñu bopp daal te xam ni eh, mbokk yooyu di ay mbokki taalibe te ñu gàllankoor leen ba a mënuñoo dellu ci seen liggéey eh, am na lu war ci suñu diggam ñoom sëñ Ameen Njaay wax dëgg dafa na ci na ci aw jub bu am solo boo xam ni waa daayira Touba Montagne la ko jagleel wax dëgg yàlla gis nañ ci njariñ bu baax di sant képp boo xamante ni da nga ci sa ñaq di ñaan moom yàlla buñ la ko fay nii waaye yàlla na yàlla na la suñu borom ak suñu ci mi tax ngay def fay. Mm-hmm. Euh, mbir mi ba mu amee sëñ Pape ma ma xel fattu waaye soxna maam jaare moomu di député bi jox ko naag ñun ba jox ñuy tegtal. Mm-hmm. jàppale ñu itam ci xel ak nañ lañ war a doxee. Mm-hmm. moom def na mbiram. wax na ma ko ndeysaan bi kàttan naa ceeg woo na ma. vraiment am disponibilité. effectivement waaw loolu tam il faut il faut nit ñi reconnaître que ni moom ma nga ca la ko war. Mm-hmm. ndax yaakaar naa ku jiite communauté sénégalaise boo déggee information la nga ci war a doxee en tant que kilifa mooy nga jéem a yow mi nga xam parce que yaa leen dafa mel ni kon ci sa càmm lañ nekk. Mm-hmm. war ngaa war a gëstu loolu nu mu demee ndax lu leen ci laal laal la ci yow. moom mm-hmm. yow yow mi leen représenté. ci noonu sunu jëwriñ ci matam sëñ Pape Birama Diop euh, bi mbir mi amee ñu taaxaarlu une semaine jóge na fiit nag dem ba ca consul ba waxtaan nag soxna sa ba wax ko li ci xew mm-hmm. donc ñun devoir informé nañ amoon waaye euh, gisuñu tutelle bi nga xam ni tam daanaka war na ci diggante bi mm-hmm. ndax communauté sénégalaise fu mu nekk mm-hmm. yow mi représenté sénégalais yi li may wax information li ko soxla moo ko war a jëli Mm-hmm. devoir d'informer nag lañ amoon ah yi ni ñu ko waxee ci suñuy kilifa spirituel noonu ñu ko waxee suñuy kilifa étatique. Mm-hmm. kon ba tey wa yoon woo wàccuñu ko. kun ko war a yëgal ku ne wax nañ la ko yow gis nga semaine passée ñoo ngi ci doon waxtaan ci yan démarche lañ def ak fuñ ci toll ak nuñ def. Mm-hmm. Euh, donc yooyu yëpp bi sëñ waa daan Diop ñëwee ndeysaan moom itam ñoo ngi koy sant ci leeral lenn ci bopp Sénégal yi ndax dégg teel rek ni damu na te demut noona loolu it moom itam taxawaayam ñoo ngi ciy sant muy waa Touba Vision sant ci rajo Xassida Online Touba Monde bi nga xam ne ñoom itam wax dëgg yàlla jàppale nañ ci yoo xamante ni daanaka am na lu ca doon war laaju ñu ko loolu it dañ koy reconnaître ndax boo nekk ci jafe-jafe ku la ci war nga ko sant. Mm-hmm. association naaru dara maa ngi koy sànq lañ lañ gisee ak ñoom ñoom it ñu indi seen contribution ci lu am solo loo xamante ni kenn xaaru ko woon waaye dama leen waxee woon rek daayira Touba Monzam danaan dafa doonoon daayira yoo xam ni hiérarchie eh, yi am ci daayira sax am fa boo fa ba duggee fa mën ngaa bañ a xam kan mooy jëwriñ ji ndax tellement ñun ñëpp dañoo bokk ndoo doon bokk ndey ak bàyyi man bisoo ko manifesté ni ma yor poste sàngam amu ca ñun ñëpp dañoo hmm. eh, kon ñoom itam li ma leen waxee daayira Tuubaa dafa doonoon daayira boo xam ni da daan dimbalee waaye mës sa xaar ndimbal ci kenn kon nag loolu nan ñu ñaanal ba loolu teggeeku ndax Sëñ Tuubaa mi ni liggéeyal kenn mës ko jàppale ci liggéeyal ba hmm. waaye nag ndog bu amee ak ay sabab faaw mu am xëy na lii day bunt boo xam ne lii ngay wax ni fas yéene boole mbooloo mi ban bennoo ba di yëkkandoo di tegandoo xëy na lii day bunt bi ndax wax dëgg yàlla sëñ bi dëkk boo def ñaar fukki at am na ñoo xam ne am nañ def nañ fi ñaar fukki juróom ñoo xam ne def nañ fi fanweer mm-hmm. te ñun communauté bu ñëw gën ñoo avancé communauté bu mujjee ñëw sax moo ñu gën a organisé wu ci ñun sëñ bi ñun sunu doxin ko war nañ ko seetaat nag sëñ bi seet pédagogie bi ñuy waxtaanee te xam ni du loolu mooy mooy li li à chaque fois mooy li liy jariñ parce que mbir yi day day changé sëñ bi hmm. gis nga détails yi nii liggéey dañuy dem ba yàgg gis nga euh, informel bi dafay jóg ñu ngi ci ñu ngi informatisé ñu ngi ñu ngi automatisé industriel quatre point zéro xam nañ ko donc c' est ça am na machine yoo xam ne doxatu fa am na borom borom kattan yoo xam ne dootul kattan affaire xel la te gis nga ko dañuy dem ba yàgg ñu la ah yow kat comme ça doole sëñ bi kuy liggéeyee dooleem nag daanaka lu diis gan rek lañ koy jox nga gis goo xam ne goo xamante ni day doog a ñëw nga man ko man mag ko foog mën koo jur foog mu lay mu lay jiite di buti yow di la bës bu toogee na ngeen am fa fa yor bi gagab bi nga xamante ne moom la parce que sëñ dafa bëgg luy dox sëñ dafa jiitoon jamono mm-hmm. anstu min yaa usa naan dunyaa jooju da ko ko topp ci ginnaaw di di ko c'est-à-dire xasida yi ni jàng pap euh, ñun dañuy jàng di tafi suñu kanam te am na ci loo xamante ni c'est des plans d'action yu ñu sëñ bi jox kese ay méthode la mais gëstuwul loolu. Mm-hmm. ah wasal saaxira naa yoxal kabir wasal kabir naa yoxal saaxir te yow mag moo gis mu iñaane gone gone goo gis mag weegul mag fan lañ appliqué boobu plan d' action. Ah, yaa maalikal mulki yaa man jalan xawadi ne xam jamel alwara yaa daal te koo gis yéene ko ay ana sa yërmande donc euh, am na beneen volet boo xam ni suñ bi xasida yi mën nañ cee génne mais nañ nañ ko càmbar te wax ko lan lan mooy lan mooy bi daa amoon jot rek ci bind. ni nga xamanteni ni xalifa yi Serigne Touba yi ku tok da nga dem ci Matlabul ni juk fa sa lo xam da nga naan lii laay liggéeyal Serigne Touba mais lool moy hmm. plan d'action ah, waaw waati ko de lool moy plan d'action nan la wa wa Toscane ak ñi leen jàppale taxawal hôpital bu Matlabul Fawzayni ni bo ni plus de 7 milliards nga man ko tabaxee hôpital te dërëmu état dugg ci dërëmu organisation no gouvernement dugg ci mais nosu gogo anama ana nan la nosoo ba tabax Masalikul jinan nosu googu cest à dafa war a law ci diaspora bi kenn ku nekk sëñ bi kër sëñ Tuubaa ba fa demee da ngaa war a set jaaxle ci xam-xam dafa war a dañ. set mm-hmm. jaaxle ci ci war a dañ. set mm-hmm. jaaxle ci économiquement dafa war a dañ. Mm-hmm. te manqué wuñ les moyens manqué wuñ les moyens comme il faut ñu wutaat beneen nosu boo xam ne. ci la daayira yi dox ñu wët beneen forme boo xamante ni parce que boo ko fa indee nag ñu la ñi kat moom dañoo andi benn révolution boo xam ne fekk sëñ bi. Euh, ñu ñi yëpp jaar eh, jaar nañ jaar nañ jaar nañ waaw waaw ñu dañu dañu ñoom njàngum càmmoñ lañ jàng déedéet fekk ñi ngay tuddee njàngum càmmoñ sax fekk na li nga li nga jàng ci alxuraan lépp jàng nañ ko dañ dañ dañ dañ ko dañ ko wane wut mm-hmm. ndax deuxième génération ñëw Italie bu tubaab bi amoon la mu bu ñëwee fii du jàng alxuraan xasida que ñu ci bari ay diplôme lañ kon gestion daayira yi ak gestion daayira yi mën nañ ko yor nañ yaatal ñooñu yaatal gone yi nga xam ne ñu fi leen juddoo ndax mbir mi dafay laaj loo xamante nii ci langue boobu la jëm fi mu toll nii buñ soxla woon euh, mais ñan ñoo fi traduire Tesoru Sixaar rek ak ak ak Pusti bii ak yenn ci xasida yi en italien léegi dañoo dañoo jàng italien boole koog boole koog nag léegi alxuraan jee xasida yi ñu jàng xam ni dañ parce que tam traduction day laaj la langue d'origine ak la langue de destination ñaar yépp nga maîtriser ko sinon rek nga nga ñak kon bo intégrer wut ñi nga xamni fi lañ nekk ci réew mi di jàng loolu nga fexe ba li nga soxla ñoom ñu la ko véhiculer ci langue boobu bu boobaa dana dana mën a woyof kon loolu nañ nañ nañ ci bàyyi xel bu baax baax naa yombul nag yombul ginnaaw ak léegi bis bu jot année bu jot ñu defal ñu ci discours année bu jot ñu ñu waxtu ko fenn fu ne ñu waxee ko fa te mënta sotti xëy na euh, fii gox bi euh, lu mel ni dix-huit xam nga mi ngi tënk ay daayira daayira fii lu mel ni société rouba bi nga xam ne sëñ Mamoor moo ko joxe woon fii bu yàggut mhm. mi ngi tënk ay daayira ngir ñu wut mën a wut li ñuy wax un village pour Cheikh Ahmadou Bamba waaw mhm. muy xaw lu xawee jafe bureaucratiquement ak yu ni mel mais cest dire am nañ opportunisme wala euh, optimisme ni mën naa sotti mais bu sottee nag ndax dina méngoo la nga xamante ni mooy doxal jamono ji mhm. waa du dellu rek ci dañoo wut ak kër sëñ Tuubaa fee ma nga né euh, cest à fami fu muy mujj fu mu toll nii muy doxé ni bu dee doxee nii kër yi bo xefé lima ci metti moy man nañ ko ñak té lolu informel rek mokoy wara di ak ak jaayil go xamni ak li ñuy wax obstiné parce que tam mbir boko yoré ci doxu doxul bu dee dox gi rek mo la ci teeloon war nga mané kat taxaw yëkëti sa baram dañ ni man kat di ngeen ma dëng ko wax dëgg diis na ci mënun bu ko doxal mm-hmm. dañu sét ko ko mëna doxal ma top ci ginaaw man mu dox rek la bëgg mm-hmm. waaw te bañ cee indi ah, dañ ma xeex ak ñii dañ maa bañ ak dañ ma xeeb gisuma ko ko fi mën ak façon yooyu déedéet <laughs> loo loo mënut moom bul ni kenn mën ko. Mhm. impossible moom c'est pas Dieu. Mhm. yàlla moom impossible amut ci moom lenn kenn ku nekk nag ni may faral di waxee xam-xam moom di bi ni nga yore oto bi di doublé oto noonu la lay oto yi doublé. Mhm. xam-xam kenn ku ne la nga yor am na ku la faaw xa. foo xam ni xay na sax moo la gën a modeste ci ma ngay jëfe par xam-xamam waaye nag. melni man yor sa ki rek di wax rek amna amna lo xam dal budé dox gi rek nga bëgg war nañu togaat suñu biir nag ah, settante xalaat xol yu bari yi nga xamante war nañ ko mëna éviter ci daayira yi éviter ko ci daara yi mhm. moderniser ko au moins te fek tuba bi sëñ bab man maa ngi woo mbul mbokki julit yi nañ bàyyi seen xel ci nasaraan si mhm. nañ bàyyi seen xel ci nasaran si dañuy ree ba def la liñ lay def municipalité du leen bett. municipalité mhm. du leen ba ma benn waay bu mën a liggéey ba ma xam ne ma waaye bu ñu la joxee rendez vous neuf heures nee na bu huit heures demal bala ñoo naan café ndax bu ñuy naan café di soppeeku. Mhm. fii la ñëw ci sa kër sa kër ñun ñi ñëpp kenn ku ne fi mu toll yow juste ni fii kenn ku ne ñoom am nañ droit dugg sa kër te doo mhm. defal la fa lañ la fay defal te doo ko yëg man dem wax naa ko sànq rek jóge naa fii dem Sénégal dikk fekk sama kër ubbi nañ ko te yoruñu mm-hmm. caabi mm-hmm. ndax maa ngi caabi yi mm-hmm. heureusement ñoom bindal nañ ma benn kayit wan xamaa ni ma ubbi maan dugg nañ loolu au moins am nañ jub googu bindal mi na ñëw kayit tafal ma ko ci kaw bibliothèque bi ni ma duggoon nañu fi ndax ki ci suuf moo doon lamentaaru ni dafa mel ni ndox da doon jóge sama kër di ñëw ci te te amut ndax man bi may dem tëj naa sama kër waaye ñoom ci seen bopp bindal nañ ma kayit ni ma ah, maanam duggoon na ci bi ma dikkee ci kër gi gisuma fi signe d'infraction mm-hmm. kon rawatina xale ba nga xam ni daa dem def fi dénoncé ni naanaam man kat dañ maa nangam dañ maa nangam assistance sociale wala nga ndaw si eh, dem fa di wax fa lam fay wax dañuy fexe ba kenn ki ñu convaincre kenn ki ñu xam ne liggéey na ñu dikk ci kër gi du ñu defal leen fa leen leen toog dee leen seetaan ba xam ne muy loolu am nañ droit def ko fépp nañ ko nañ ci bàyyi xel daara yii fi des ak lii néew na leen leer ni def nañ fenn fu nekk caméra fu Sénégalais di nekk rawatina muy nituk l'islam na leen bir ni def nañ fa des caméra cache loolu na ngeen ci bàyyi xel ñaar ñetteel ba mooy na ngeen ko seen téléphone yi whatsapp bi baax na waaye tarara rek taxul ñuy wax mm-hmm. te téléphone bu njëkk boo masaan dindi batterie bi moom mënatu laa localiser mënatuñoo dégg li ñuy wax waaye léegi batterie moom c'est incorporé a koo dindi. te téléphone bi bu hmm. bu fayee sax micro bu fayee sax micro la nañ ci bàyyi xel. te secret yu bari ci suñu biir mu yem suñu biir ñun lu bari ñoo ko yàqal suñu hmm. ndax ki nga wóolu baax ko kat moom am na keneen ku mu wóolu. am na loo xam ne li may wax dafa am waxtaanu pëcc am waxtaanu ëtt am waxtaanu néeg li ci biir néeg bi sëñ bi bu mu génn ca ëtt ba bay dem ca pëcc mën a wax kat xam li ngay wax bu gën. Mm-hmm. waaw nañ fegu ndax ñoom kat dañoo ñaw te bir na leen ni moom suñuy mbir taxu ñuy wax ñàkk pexe tax ñoo moo tax ñu ban fi ndax andi wuñ ñu fi te bàyyiwuñu waaye bu amoon bu seen pexe juboon duñ ñu fi indi. Mm-hmm. benn misaal bi ma leen jox rek mooy communauté européenne bi bim daataan taxaw bay dugal les pays de l'Est waa Maghreb lañ ci ko dem muy Maroc Égypte Libye. ak Algérie. Mm-hmm. ni leen de leen di duggal communauté européenne ba toog ci seen instance yooyu ñoom lan gis mooy dañ ne ah, ñooñu tax nañ ñu ñuul dañuy daal di rax suñu population kon tourné wu vers pays de l'Est moo gën ci ñoom. Mm-hmm. moo taxoon ñee daal di fu yi ñoom it reste Afrique jàpp ni ñoom duñu africain waaye gis nga leen yàlla fayee. Mm-hmm. kon rawatina nit ñuul ñi nga xam ñu ci biir dëkk bi nañ bàyyi xel bu baax a baax que ni seytaane daal du tekki ngembam da ko yolomal maa ngi tuub baax a baax. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf mel na ni ñu ngi ci njeexital bi waaye am na mbokk mu nekk ci biir sëñ Bass Diop. waa kay salaamaaleykum wa rahmatulah ma jox la rek nga tënk ndax daanaka xaabaabal nañu trente minutes waaye moom tey jii moom. bi yaatu woon na yaatu woo xam ne mu ne su ko woon a dagg bisimilah sëñ Bass. tënk bu gàtt sax kay sëñ Pape dañoo rafetlu lool émission bi rek. li matoon a wax lépp. Abdoulaye Diop moomu ak sëñ Maxtaar Taal Pape Maxtaar ak euh, sëñ seex Mbacke ak yow moom wax ngeen ko xanaa dañuy feeñal yéene rek di wax ne euh, am nañ yàqin ju wér ci ne mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon teewlu émission bi di ko déglu tey seen xol sedd na ci fi ngeen dugg nii ndax da ngeen a waxtaane loo xam ne lu mat a waxtaane la euh, nit ñi dañoo soxlawoo booloo bennoo ak dëgg dëggu bu ñu ba booloo bennoo dëggu fexe ba dindi soxor ak bëgg àdduna ak eh, ak ñàkk a dëggu eh, buñ ko fexe ba dindi ko eh, fexe ba def booloo bennoo ak déggoo de liñ bëgg lépp mën nañ koo am. Mm-hmm. màggal yu bari yi ñuy def di di di di di di fere lu dul jeex buñ fexe woon ba toog waxtaan la ñuy wax ñu jàpp ko mu doon dëgg ci ñun ñu fexe ba xaalis yi ñuy dajale ñuy organiser fexe ba at mi yëpp. liñ fiy def bañ a ëpp ñeenti festa euh, moo xam festa yuñ koy jagleel waaye mu bañ a ëpp ñeent ñu xool barab yañ koy defee barab yi gën a diggu doomu li des ci xaalis bi kenn ku ci nekk daayira bu ci nekk wala gox bu ci nekk ñu am luñ la sase xaalis at mu nekk mën nañu ubbi benn supermercato bu rëy boo xam ne la ca war am lépp da ci am mboolem suñ ñun ñi ñuy taxawaalu kenn du taxawaalooti mboolem kër sañ Tuubaa yi eggut yépp danañ leen eggale euh, liñ bëgg a def lépp ñu def ko ndax démb dong laa gëj a bi di leen laaj ci association bi nga xam ne yor naa ko ngir xale yi nga xam ne bëgg nañ leen di leen toppatoo leen jàng waaye lañ ma njëkk a rëddal mooy du ngeen fa def festa du ngeen fa manjaare du ngeen fa def diine loolu kon il faut que ñun ñu soppi suñu xam ne la nekkoon nekkatut te it eh, association yi ne ci réew mi yëpp Italie joxe nañ digal ci ñu eh, modifier leen loola moo di gis nañ ne association yu baree bari eh, dañ ko ubbi ci xëy na ci seen bopp kese lañ nekkoon loola nag Italie dogu nañ ci loola jeex Euh, kon app bañ joxe woon nañ ku ci modifié bañ egg ca euh, danañ ko diggaale ak yow yaakaar naa ne app ba jeexna na bañ yokkaat ko ba mu jeexaat ba mois de juin bii di ñëw lay jeexaat kon képp koo xam ne yoroon nga association boo xam ne bu bu bu bu yàgg la il faut que nga dem centre services yi nga laaj leen information pour ñu ñu modifié bu ñu ko xasee modifié liñ ñu wax ñun course yi ñu dem li Pape Makhtar Tall doon wax léegi ñu ngi dem ci course di ko séguir waaye liñ ñu wax mooy na ngeen na ngeen xam ne la amoon ak lii am bi yoon du bokk contrôle yi nga xam ne moom la ñuy yónnee mooy duñ yónni koo xam ne ku baax lay doon kuy ñëw di fo ak a kaf ak ree boo xam ne maanaam ignorante lay doon moom la ñuy yebal ñooy def contrôle yi kon ñun ñëpp nañ jéem a euh, tënkuwaat ci sart réew mi te jéem a gëstu xam li nga xam ne mooy luwaay réew mi jëm cee tënku ngir yàlla jëm sëñ Tuubaa ndax loolu la ñu sëñ Murtala ci boppam daan digal sëñ Maamoor mi fi ñëw loolu la ñuy digal kon ñoo ngi sant Pape Demba ñoom ñi nga xam ne saa su ne itam ñu ngi ñuy fàttali luwaay yi nañ ko jéem a dégg ca jéem koo jëfe ngir yàlla jëm sëñ Tuubaa maa ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëñ Bas euh, di bu baax suñu jëwriñ Alaaji Cheikh Mbacke Mbuub géwlu Xaadimu Rasuul te jii mel na ni daanaka xabaabal nañ genn wàllu waxtu waaye nag euh, thème bi moo ko laajoon te xam naa ne dinañ ci dellu siwaat ndax mu ne suta yem ci liir rek euh, dina dinañ toog jamono joo xam ne du ñàkk dinañu euh, dalal ay jiw jëwriñu daayira ngir waxtaan ci côté daayira ji ndax it daayira yi defe naa ni tey jii ci côté général bi la ñu gën a wax maanaam côté administratif bi waaye jaadu na tamit ñu laal biir pàcc yi nga xam ne moo jëm ci wàllu daayira yi may war rek di fàttali mbokk yi nga xam ni mooy sunu mbokk yi sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Italie di leen fàttaliwaat woote boobu nga xam ni woote woon nañ ko mu di euh, ci wàllu taxaw euh, ndax nag euh, xëy na man mënuma wax waxi wàllu xaalis waaye tey jii képp ku woote ci men Monza ci jëwriñ yi moo xam sëñ Ablaye mi ku ko jot wala ku jot ku mel ni sëñ Amet Njaay Euh, di nga am information yi nga xam ni moom moo war man euh, euh, yaakaar naa ni tey ji war na bépp jëwriñ ci ci Italie ak mbokki taalibe ñu am taxawaay gu ñu taxaw ndax fii kat ñëpp xam nañ ni ci wàllu yoon ay koppar rek la laaj waaye it yamul foofu ndax it mbokki taalibe yooyu am nañ lu leen war kon wax dëgg yàlla war nañ leen taxaw di waxit fii ci wàllu toskaana jëwriñ ñu toskaana yaa ngi fi képp koo xam ni am nga yéene taxaw suñu mbokk yooyu nga xam ni euh, ñu ngi toll ci diggante nekk ci ay ndog-ndog euh, loo bëgg loo bëgg jàppale ci jàppale euh, jàppale leen boo ko joxee ci jëwriñ ba nga xam ni moo nekk ci daayira ba dana fexe ba mu yegg si ci ñam war a yegg si di ñaan fu daayira yi nekk tam ñun lañu yaakaar rek mooy di sunu culture mu di ñaan ak it nekk ci alxuraan ak xasida euh, ne ñi ngi ñi ngi sàkku di majjal kuréelu xasida yi euh, daayira yi fépp waxtu wu ñu bu ñu wàcceete kaamil ne ñu ñaanal euh, xew-xew yooyu suñu borom sotti ci ndox ba ba ñu fàtte ko jàmm waaye it ñu waxtaan ci ba jóg jëlee ci ay taxawu boo xam ni dinañu soppi suñu taxawaay xam naa ni tey jii li ñu bëggoon yëpp Euh, mu ne su ko wax li olof di wax rek li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi waaye dañuy yamale fii waxtaan bi rek di ñaan suñu borom defal ñu jàmm euh, euh, di ñaan it lépp loo xam ni wax nañ ko fi mu doon rëcc rëcc ñu ngi koy tuub di ko di ko di ko di ko jégalu ci mbokk yëpp waaye lépp lu fi baax rek ñoo xam ni ndimbalu suñu borom la di sant bu baax Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall di santaat tamit Serigne Ablaye Diop daaru xasanaat ci taxaw bi mu taxaw tey ji vraiment joxe na ay eh, éclaircissement yoo xam ni yaakaar naa ni dana la mbokki taalibe bu baax kon mbokk yi loolu moo doon tey ji diaspora leen sant leen gërëm leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërë ngeen وسادتنا ذكر كل حسبي الله